chambre 10 chambre 4 chambre 9 ñoo ngi leen di bëggee bu baax a baax suñuy xarita fa ne suñuy am di jàmm fa ne ñoo ngi leen di bëggee bu baax a baax mbokk yi noonu la ñuy demee di nuyu ñi nga xam si ñoom la ñoom ñoo tëdd si lalu hôpital yi di ñaan suñu borom fëgg seen i bopp bañ mën a dellu si njaboot ji ñoo ngi nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñooy suñu yaakaar tey ak ëllëg leen nuyu bu baax a baax di leen ziar leen ñaana sunu borom defal leen jàmm mbokk yi gisoo leen ñu boobu ba léegi ku ne xam na ni wàccaayu màggal geeg safar geeg ak yooyu programme bi gis nga ni mu demee ci leeral TV leeral point net looloo tax boobu ba léegi gisoo leen ñu ñu toog defal leen émission fàqat ak saison bi nga xam si ni mbokk yi tëj na. loolu yëpp tamit tax na gisoo leen ñu waaye tamit dinañ waxtaan ci saison bi nga xam ne tëj na waaye tamit dinañ waxtaan ci saison bi nga xam si moom la ñu dugg ak rawatina combat yi nga xam ci ni am na ci waaye rawatina ñi nga xam ci ni tamit promoteur yi nga xam ci ni date yi ñoo ngi koy xëccoo ci saison bii ñu dugg muy bii ñu jëm nii muy saison bu doy waar mbokk yi am na lu jot a am ci làmb loo xam ci ni mbër yi xew-xew yu bari am na fi mbokk yi dinañ leen ko wan ci leeral TV leeral point net jokkalante bi am si site euh, la dagee tamit ak kàddu yi nga xam ne waxtaan nañ ko ñoom ñaar dinañ leen ko wan ci leeral TV euh, léegi léegi waaye tamit dinañ jokkoo kenn koo xam si ni tamit bokk na ci nga ñi nga xam si ñoom ñoom ngànk Tarkinda sociale muy góor a bàyyi ma say moom itamit président la fële si Tarkinda social moom itamit dinañ jokkoo moom parce que ñu waroon na fee ñëw waaye ku ne xam na ne xat-xatu jamono ji ak nawet bi ñu ju bi ñu nekk nii ak ndox mu bari meeg coono yooyu yëpp tax na euh, euh, dëkk bi xat waaye tamit ñu ngi ñaan suñu borom wàccee lu ñu nawetu jàmm ñuy ñaan lépp lu fi wàcc ci ndox lu ne yàlla na ko yàlla ful mu doon jàmm ci réew mi di doon jàmm joo xam ne ci wax dëgg yàlla euh, ful sunu mbokk yi nga xam ne tamit ñoom ñoo nekk fële ca Maroc. gis ngeen suuf si nu mu yëngoo fële ca Maroc ñiy ñaan sunu borom defal leen jàmm ba ñëpp delluwaat seen activité ñu ngi leen koy ñaan bu baax a baax ndaxte suñuy a nga fa. suñuy am di jàmm nga fa suñuy lépp nga fa ndax diggante Sénégal ak Maroc benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar waaye ñoo ngi leen di masawu coono bu baax a baax métit bi fa am wax dëgg yàlla ñi nga xam ne toog ñàkk nañ seeni bàkkan di leen ñaanal suñu borom xaali leen àjjana fii daw si mbokk yi ñun lay ak leen ak leeral tv leeral point net gis ngeen eh, ni ñu ni ñu leen image yu ñu leen wan ci li nga xamante ni moom moo amoon fële ca tuubaa Euh, wax dëgg yàlla di image yu doy waar liggéey bi nga xamante ni leeral TV ak leeral point net liggéey nañ ko ci gam ci màggal gi waaye tamit noonu lañ ko fa yéenee liggéeyee tamit ci Tiwaawan bi nga xamante ni si lañ jëm mbokk yi seen émission fàqat balaa ñuy def dara dañuy nuyu ñi nga xamante ni ñoo ngi toog seen i kër du ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ah suñuy xarit ñoo ngi leen nuyu dumb yaa maa ngi lay siyaar bu baax a baax maa ngi lay nuyu di lay ñaan suñu borom defal la jàmm yokk la yow suma xarit nga suma doomu ndey nga maa ngi lay nuyu bu baax a baax ah maa ngi lay nuyu nuyul ma famille bépp ñu ngi nuyu sunu xarit yi nga xam ne ñoo ngi nekk fële sa États-Unis ñoo ngi lay nuyu bu a baax madame Senghor ñoo ngi lay nuyu Jazz Pro what's sa game ñoo ngi lay nuyu bu ragal dara foofu nga nekk sa états day métti rek yàggam-yàggam eh, day ñëw léppay ñëw waaw bu ragal dara nekk ci rek waaw ñu ngi nuyu ñëpp diaspora bi fàttewuñu kenn yéen ñi nga xam ne si yéen ñuy topp seen émission Faaxat gaa yi duñu leen bàyyi ñun la ak yéen dinañ leen bégal bu baax a baax mbokk yi tamit dinañ waxtaanee eh, lu tolloog si sita euh, euh, Lac euh, Lac de Guiers Siteu dinañ ci ñëw waxtaan ci bu baax a baax waaye tamit ku ne xam na ne bàyyi Ndiaye sunu xarit la bàyyi Ndiaye suñu frère la wax dëgg yàlla moom la ak Nick Nicolai ak ki nga xam ci moom mooy Aziz Ala Ndiaye ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax festu festu bu am. ci diggante Ama Balde ak ki nga xam ci ni mu ngi mooy Modou war a am fële ca Gàmbi ci teewaayu président aadama Barrow ñu lay nuyu baax a baax di président boo xam si wax dëgg yàlla oyofam gis nañu ko waaye tamit ni mu disponible wax dëgg yàlla kontaan nañ ci bu baax a baax ba mu nangul ñu loolu nga xam ne moo war a am ca Gàmbi dox ci diggante Ama Baldé ak ki nga xam ci mooy Modou muy làmb làmb joo xam ne coow li yàgg na yàgg na amateur yàgg nañ koo bëgg ah ñiy ñaan sponsor yëpp nañu daw ci wuy si ah, Leeral TV dem waaye tamit wuy ci ji nga xam ne ci moom mooy Baye Ndiaye ak Aziz Ndiaye ak sëñ Fallou nig Nicolaay mbokk yi Pape Diouf tamit dinañ ci teewe mbokk yi xaar leen leeral TV ak leeral point net dinañ leen demal fële ca Gambie defal leen fa affaire yu doy waar affaire yu nga xamante ni lépp lu am biir Gambie mbokk yi dinaa ko ànd ak yéen ñu leeral comme leeral la Diop wéetal nga ma trop sama xarit bi da baax go maa ngi lay nuyu. président Goro Ndoye. waaw Fallou maa ngi lay fay vraiment sant yàlla di am contentement bu baax waaw macha allah sant yàlla métti na de métti na waaw sant yàlla xam nga ñun ay murit lañu mais ndox mu bari mi ndox bari mi waaw vraiment Fallou ren moom vraiment xéwal la xam nga ndox xéwal la. Mhm. vraiment ñuy sant yàlla bu baax di nuyu suñu sëriñ sëñ Mountakha Mbacké. di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi lool vraiment parce que ren gis nañ ne màggal gi dafa gën a tawféexe ndox mi lépp xéwal la li ñuy faral di wax rek waaw mu murit moom lépp lu ñëw rek da koy sante yàlla suñu borom mhm. ndax ki waral bés bi yaakaar naa sant leen kay leen sant leen ma yàlla moom la woote mhm. kon lépp lu ñu fa def rek ci maanaam ci kàddu cant lay nekk Fallou di am contentement bu baax di nuyu téléspectateur leeral TV yi ñuy seetaan di nuyu amateurs yi ñu nekk Sénégal ñu nekk diaspora bi di nuyu ñëpp di nuyu ñi nga xamante ni aussi ñoo toog seen salon di ñu seetaan xam nga fi sama kër la te su ma mhm. fi ñëwee damay sawar parce que kër la goo xamante ni waxtaanu làmb saa yi nga ko fi waxtaanee àdduna yëpp a ñuy bàyyi xel mhm. ñuy nuyu ñi ñuy toog di ñu seetaan di nuyu amateurs yi di nuyu sama yaay bi ma bàyyi Pikine di ko ñaanal yàlla suñu borom may ko fan bu gudd ak wér di nuyu monsieur le maire Pape Gueye nga xamante ni mu ngi foofu si jàmm gën si Kambaaw kooku ni aussi Fallou mu ngi def lu am solo ci askanu réew mi non Pape Gueye Pape Gueye doon xale boo xam si nii gis mm-hmm. nañu yitteem yi waaw ku feebar mu faj mu faj néew yu doole yi mm-hmm. ci ndox meeg yeneen et et cetera Pape Gueye muy def ci réew mi bari na bari goo xam si ni mm-hmm. foo ko natt weesu na xale boo xam si ni ku jox ay mag cër vraiment waaw kooku moom dañu koy ñaanal sunu boroom defal ko jàmm ak soxnaam ak soxnaam ndeysaan xam nga tëlimaam jaara Maam Jaara tali Maam Jaara waaw dañoo war a jàppale ku mel ne Pape Gueye Pape Gueye loolu ah, nag ay euh, bonne volonté la ñu dañuy jàppale tamit ñi nga mm-hmm. xam ne ñoom ñoo nekk ci mbënn mi sonn lool ndax Tëlimaam jaana jot na nag mm-hmm. jot na président Macky sàll gestu waa Tëlimaam Jaara mm-hmm. ndax ni ñu sonnee noonu ci ndox mi métti na trop rawatina waa waa Fass Mbaaw ak waa Jàmmagën ak waa Samsam wax dëgg yàlla li ñuy dund noonu ci ndox mi métti na trop boo bëggee taal sa añ ci ndox mi nga koy taale cin bi ngay teg ci ndaa ci ndox mi nga koy teg dafay métti nga bëgg di xuus ci ndox mi ak ndugg yi ngay yor yu sew sewaan bëgg a togg añ bëgg a jox xale ñu lekk ak ku ne xam ne ne ndox ndoxu nawet ak euh, li nga xam si moom mooy lay àndal dafay ndawati na nga fiy togg añ pour nit di ko lekk loolu pour sa wér gi am euh, wa sa santé tegu ci mm. yoon mm. day métti kon mm. nañu jàppale waa Tëlimaam Jaara nañu jàppale waa Jàmmagën Sika Mbaaw Sam-Sam bi métti na trop ku mel ne ki nga xam ne mooy Pape Ba ak équipe bi mu àndal ñoom sonn nañ ci mbënd bi chaque jour guddeeg bëccëg subaa ngoon waaye tamit di nuyu monsieur le maire Cheikh Aliou Badara Bey moom itamit tamit moo ngi ciy bay waaram lu mu mën moo ko ciy def nañ ko jàppale moom i tamit que ñun ñëpp. ñun benn lañ. ñun ñëpp ay benn lañ. parce que nag Sénégal dafa naqaree wax dafa naqaree wax dëgg dëgg la waay Fallou dëgg la dëgg la vraiment monsieur le maire Pape Gueye comme ni nga fi nga daanelee rek muy nit ku social di nit koo xamante ni dañu gis ne que ndaw ñi nga xamante ni tey ñooy nekk jàmm gën si Kamba mu ngi leen di taxaw di leen appuyer di leen jàppale te mën nañ wax ni nekkul maire bi kon ku mel noonu tamit dafa jaadu état aussi jàppale ko bàyyi ko xel vraiment nit la koo xamante ni nit ku social la nit ku am fulla la nit ku am fayda nit ku nangoo sonn ci doomu aadama mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm foofu mu nekk di nuyu aussi tamit vraiment monsieur le directeur de l'emploi muy Pape Modou Fall di wax ni ko nit la boo xamante ni moom it depuis président teg ko fi mu ko teg ba léegi mu ngi jàppale ndaw ñi ci wàllum emploi xam nga tey fàllu bu nit amulee liggéey rek du mën a faj soxla mhm. yaa ngi wax am solo Mm-hmm. boo xoolee mënd mi gis gaal yi nga xamante ne xew na gis xale yi léegi ni ñuy def pour mën a tukki pour am dara nga xam ne métti na gaal yi gaal yi gaal na mais na ñoo na mais tamit euh, sant yàlla Pape Modou Fall le directeur de l'emploi mu ngi ciy bay lu am solo dafa war a jàppale waaram waaw vraiment moom mu ngi ciy bay lu mu ngi ciy bay waaram xanaa kay dañ koy wax mu gën a yokk mais vraiment Fallou mais gars yi jël nañ micro jël nañ micro Grégoire bi de vraiment bëgg a tekki rek xam a la may dem de damay takk ci ñi dem de yow a a la soxla a teral a jóg sa waajur bu mu tax nga jaay sa bakkan dëgg la a ndax xoolal lii dee dafa bari dafa bari nga am na ñoo xam ne dem nañ dippi depuis avant avant avant Korité mënuñoo am liggéey ndax amuñu këyit boo liggéey du États-Unis da ngay dem wala wala wala Brésil da ngay dem wala dëkk jàmm da ngay dem comme Sénégal ni mu mel ni mm-hmm. Sénégal da ngay ñëw rek liggéey mm-hmm. waaye tey ji boo bëggee dem États-Unis mm-hmm. foog nga am këyit balaa ngaa liggéey mënoo dem États-Unis rek xëy xëy rek liggéey lu ñu dégg ne États-Unis dangay dem rek liggéey loolu amul boo demee boo amul këyit doo liggéey boo amul loo lekk ak loo naan da ngay sonn il fallait que ñoom ñu xam loolu ñoom sénégalais ñu xam loolu seen bopp dëkk bi metti na tamit toog fii si tele bi di wax ak yéen ñun la gën a métti si ñun hmm. ñun dafa metti de affaire bi ci luy baax la de mais nag nañ leen di a suñu borom defal leen jàmm yokk leen ah, ñu ànd ak wér gudd fan bu ànd ak wér tey saison bi tëj na. Hmm. bu ñu duggee ci waxtaan bi dëgg la euh, premier partie bi neex la lool. yoon hmm. euh, la ñu waxtaanee jeunesse bi waxtaanee li ci am. mais saison bi tëj na. bilan saison bi. saison bi mu tëjee gis nañ combat yi fi am yëpp. saison bu neex. dugg nañ ci jàmm ci bisimilahi rahmaani rahim mu jeex ak ah, alhamdulilahi rabbi alamin ñoo jëm ci saison saison bu rëy. xëccoo bi bari na ci promoteur yi ci date bi. waaye tamit mbër yi. ku ci nekk tamit yaa ngi bëgg combat bari na bari na yoo xamante ni mu ngi am ci saison bii ñi nga xam ne ñu ngi ciy dugg. si Lac la Guiers di combat boo xam si ni combat royal lal Sénégal gépp dañ koy xaar. ah ku ne xam ne ni si tëgg la daguerre ñu si nuyu suñu xarit boobu Mansour maay Mansour naqari ngaa jot de ah Mansour jëlal sa téléphone bi de Mansour jëlal sa téléphone bi naqari ngaa jot de te waxoo ma woon lii de hmm? ñu jëm tamit si Ama Baldé Ama balde di xale boo xamante ni làmb da ko soxla lamb da ko yaakaar war a bëreek roi des arènes Modou mi nga xam si ni dafa téye roi bi boobu ba tey bëreewul yooyu yëpp ndeysaan Fallou waaw yaa ngi wax lu am solo vraiment ñuy def bilan rek par rapport ak saison bi ñu génn muy bilan bu positif. Mhm. bilan boo xamante ni mën nga wax ni tey lamb daf ci gën a wanewaat boppam. Mhm. ndax boo xoolee saison bi ñu génn ay révélation feeñ nañ fi. Mhm. boo xoolee ci côté jeunesse bi mën nga wax ni ki mbër yu ndaw yi. boo dee xool tey jii mën nga wax ni meilleur espoir. Boy Diop 2 la muy Diop 2. boo Diop 2 def na 4 combats ci saison bi am ci 4 victoires nekk benn révélation boo xamante ni tey ci lamb bu doo wax fi mu toll nii benn xale te doo ko tudd nga gis tey ku ci mel ni Mor Kankan. donte dafa ñàkk combat ak Youssou Ndour gis nga ni mu def arène nationale dernière journée bi nga xamante ni Ibolaay moo ko tëgg nga gis ne que am na ay xale yoo xamante ni ku ci mel ni jeex jàmm mën nga wax ni moo ibbi woon saison bi digganteem ak Ibou Afia nga gis ne boo yooyu yëpp ren wane nañ seen bopp ci làmb ji ñoom ñi nga xamante ni ñoom ardo vraiment ñoom ardo ñoom Liss Ndiago ñoom Liss Ndiago gis nga Liss Ndiago gis nga Liss Ndiago def tegale ñaari sortie mm. tegale ñaari victoire ñaari victoire nga gis ku mel ni nga gis ko moom tamit mu nekk lancé bu am solo nga xool xale yi nga xamante ni ñu ngi ci suuf di jóg ku ci mel ni tey jii nii booy bi nekk parcelle nga xamante ni tey jii nii moo nekk ci digg moo nekk ci écurie écurie jàmbaar production nga xamante ni ndaanaanu kat la muy euh, moo bëreek euh, booyu kii bi Talfa Talfa. Talfa. nga xamante ni gamer bi. gamer bi. non non yaa yaa ngi yaa ngi tudd xale boo xam ne. champion la bi mu génnee ci làmb. dafa wane ni dafa am fu mu. mais ku ci mel ne Talfa ku ci mel ne Talfa làmb war na koo bàyyi xel. ku ci mel ne Liss Ndiago làmb làmb war na koo bàyyi xel. mais Tony Junior ku ci mel ne Tony Junior. ak Diop 2 xale yooyu bu ñu fooyewul seen bopp mën nañoo am leneen mu ne ci làmb. ay ay mbër lañu. ku ci mhm. mel ne anakonda parce que boo yooyu ay révélation la ñoo xamante ni boo leen xoolee da ngay xam ni fi mag ñi nekk fa lañ bëgg a teg seen tànk ku ci mel ne ak booy boo booy séeréer boobu nga xam ne fan yi temps yi gis nañ ni muy tojee làmb maam faali gis nga ko nga xamante ni ndaanaanu bërekat la maam faali ku ci mel ni ordinateur mhm, ñoom ñoom ñoom dut saane ñooñu tey jii nii Serigne Ndiaye numéro 2 dañu nekk ay révélation yoo xamante ni ci kaw la ñu teg seen bët moo tax gis nga ñi ne ci kaw il faut ñu xam ni xale yi ñu ngi ñëw pour jël seen place ñu gën a góorgóorlu gën a dëgër seen taxawaay moo tax tey jii nii làmb ji boo xoolee ren xool combat yi am yëpp fàllu da ngay xam ne lamb mu ngi dox ay jéego. Mhm. promoteurs yi aussi ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen gërëm. Mhm. parce que lamb su amee rek promoteur moo jël alalam. tëgg lamb vraiment ñu ngi remercier aussi CNG bi ci seen disponibilité. Mhm. ci seen ouvert. président Bira Sène ñoo ngi koy nuyu de passage di nuyu ñoom Ndiame. ñoom Max vraiment ñuy ay nit yoo xamante ni. waay seen buntu tëjaluñ ko kenn. lépp lu nit bëgg xam boo ñëwee ñu wax la ko. ñu gis na lamb jël na beneen envol boo xoolee moment bii nii jeunesse bi. ni ñu dundee lamb mais fàllu ren boo xoolee lamb sax am na stade bi fees dell. lamb mercredi sax mercredi stade yi day fees dell samedi stade yi day fees dimanche day. stade boo gis nga ko jeudi la muy nocturne. Mhm. nga gis ne que tey léegi xale yi xoolatuñu jour ouvrable xoolatuñu jour férié wala ñu xoolatuñu tey jii nii weekend saa boo tëggee boo leen woowee ñu ñëw. kon tey jot na état bi nga xamante ne moo fi nekk di lancer waat le président mag Sall ni ko wax ne ko nañ gën a jàppale waat lamb tey sponsor yi. bi ñuy demee palais président jàppale làmb tamit waaye teewul tamit na làmb gën a jàppale boppam. gën a jàppale boppam ndax tamit euh, gis nañu li am ci làmb lu bari dafay metti xale yi dañuy jóge seeni i kër sañsa ba jekk. Mhm. ah mhm. ñuy ñëw gaare seen i moto. Mhm. nga bëgg dugal sa moto si stade bi. am ñoo xam ne dañuy ñëw di la encaisser. di di nangu sa moto di ko encaisser xaalis yooyu tamit dañ ko war a dañu dañ ko war a bàyyi. parce que tamit ku jóge këram. ñëw dawal oto wala dawal motom dugg ci làmb kooku war nga yor sécurité ba mu génn. dëgg la dëgg la Fallou wax yàlla

ñu jàppale ñi nga xam ne ñooy amateurs yi mhm. dafa jot ñu jàppale yi nga xam ne ñooy supporters yi mhm. parce que làmb ñun ñoo ko moom jiggaani wuñ ko ñun ñoo ko moom Bira Sène mhm. nañu géem a gën a waxtaan ak ndaw ñi nañu jéem a waxtaan ak sécurité bi ak ndaw ñi ñu yërëmante ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp benn lañ ay famille lañ mais nañ jàppalante mais bu fekkee dañuy jël xale yi di leen teg di leen teg loo xam dafay métti man des damay gis loo xam mais bugguma koy tamit dañuy riposter di sànni ay sées mais lamb maa da day taali mais tey ku si ñàkkoon sa bakkan mm, tey ji mm. lan la ñuy wax dëgg la dëgg la nañu jéem a jàppale xale yi nga ah, na ci violence yoo xamante ni mën nga wax ni tey ci kaw sécurité yi la ak ñi nga xamante ni ñooy supporters yi te loolu war nañ ko mën a éviter Fallou gis nga li ñu waxoon un an ci ginnaaw deux ans ci ginnaaw la ñuy nekk di ko répété rek eh. gis nga làmb il fallait que ñu jël ay stagiaires dugal leen ci biir tribune bi ñuy accompagner supporters yi mhm. loolu yaakaar naa suñu kaddu la mhm. làmb il faut mu am VAR gis nga mhm. Fallou ay foofu million du ay caaxaan. déedéet football c'est moo mën a avancé ba bii bu duggee ñu ne leer naag leerul dañuy dem VAR. dañuy dem VAR làmb war na mën a am VAR. ba nga xamante ne tey bu litige amee wala chute am balaa arbitre bi di joxe victoire di dem consulter ay juge ñu xool VAR bi parce que am na ci lutte bi am na ci lutte olympique bi. kon tey jii si am na ci CEDEAO bi kon tey noonu loolu euh, lamb évoluer ci lutte simple bi évoluer ko ci CEDEAO bi ak lutte olympique bi noonu la war a évoluer ci li nga xam ne mooy lutte avec frappe. Mhm. parce que tey benn Modou Lo boo fay 100 millions. Mhm. fay benn Balla Gaye 100 millions. mais ñooñu seen combat bu amee litige war nañ mën a génnee recours bi ci saa si. ci saa si au lieu que tey jii nii. yéen ñi joxe di am avant ñuy joxe victoire. avant ñuy joxe victoire ñu dem xooli gis nga tey jii nii lamb ja problème ba fa am te lépp erreur la. ñu xam ne arbitre yi ay nit lañ comme ñun dañuy juum mais buñ juumte amee ñu gaaw rectifié wu bu ñu demee xool VAR mais ñu joxe victoire tey jii bi nga xamante ni Sa Thiès daan na bu ñu ko joxoon victoire bi mais chaise yi fa damm du fa damm mais dañu sifflewaat beneen chute amaat ñu gis violence bi fa am te loolu noonu tey ñun bëgguñu ko gis nañu ren vraiment sécurité bi mais am na arbitre yoo xam ne bu ñuy arbitre sama xel day dal dëgg la am na arbitre yoo xam ne du ñuy hmm. arbitrer suñu xel day xelu amateur yi yëpp day dal parce que am na arbitre yoo xam ne du ñu yàq làmb hmm, hmm, am na arbitre yoo xam ne chaque jour am na am na bis yoo xam ne nga koy sauver

ñoom ak dalam rëbb tamit aussi tamit noonu nekk noonu moo tax daal ñuy sàkku daal ñu gën a veyewaat ci yi nga xamante ni indi na ay erreur ci saison bi ñu mm. jógee ñuy calculer ne saison bi ñu jëm combat yi ñi jëm mooy gën a metti ndax tey kuy xaar Ama Baldé Modou Lô da leer ni arène nationale guichet fermé lay doon. parce que ñaari mbër yi kenn ku ci nekk say supporters mën na tëj arène nationale. Mm-hmm. yaa ngi xaar diggante Siteu ak ki nga xam ne mooy Lac de mm-hmm. mu nekk combat boo xamante ni combat capital la. Mm-hmm. Siteu bu jógee Tarkindaa yi jóg. Lac de Guiers bu jógee Géejawaay jóg Géejawaay jóg. kon tey jii nii foofu ñu ngi fay xaar aussi ay arbitres vigilants di fa xaar VAR di fa xaar sécurité bu doy ñu ngi xaar diggante Ama Baldé ak ki nga xam ne mooy Gris Bordeaux ñu ngi jëm le premier janvier muy jour de ci diggante Boy Niang ki nga xamante ni mooy Modou Lô le mu nekk ay bis yoo xamante ni mu ngi suñu kanam diggante la première nga xamante ni Kajoor production Ibrahima Diop mooy ñëw ci diggante Mama Lamine ak Goro Sock ak Goro Sock mu nekk combat boo xamante ni mooy ubbi saison bi ñu ngi xaar aussi Kandji production borom établissement Touba Dar ah Rahman le le 7 janvier mu war ñëw ci diggante ki nga xamante ni non dina ñëw Kandji dina ñëw ndax fii këram la <laughs> këram la ci diggante Fils de Balla ak Lac Rose ak Lac Rose bootal ci ki nga xamante ni tey jii mooy Jackson ah nga xamante ni tey mooy mooy mooy euh, do caatu yoof ak ki nga xamante ni mooy ñax jariñu mu doon journée boo xamante ni ñu ngi ciy waaj lu am solo kon tey journée yu mel noonu soo ko dee xaar ci saison bi ñu jëm rawatina yeneen combat yi nga xamante ni commencé na taxaw gis nga xale yi fi mu toll nii gars yi ñu ngi leen di sëkkatoo dimanche yi fi ñu nii jeex na fii ba mois de janvier. mais xale yi ñu ngi leen di sëkkatoo mais yéen tamit promoteurs yi da leen fay xale yi ah. waaaaw non xale yi tamit gis nañ ni ñuy euh, tëjee arène nationale euh, gis na mais nag xam nga tamit euh, promo mais nag mbër yu mm. ndaw yi nga xam ne ñooy jaay bloc yu bari ay 10 xam nga boo leen bëggee fay 1 million tamit nga bëgg a fay million mbër mi boo la pertement la yéen tamit jàppale vraiment ñu ngi ah. ñu ngi ñu ngi gën a sensibiliser waat yi di leen gën a ñaaxaat di leen wax ni ko tey jii ni làmb fu mu yegg si ñoom la mais comme ni nga ko waxee des fois man fàllu yërum ma sax ñi mbër yi mag yi mais booy ndaw yi ci suuf nga xam ne cent mille nga leen di fay vraiment ñooy bëree combat yi neex yi ñooy xeex ñooy dem ardo te des fois litige am nga jëlaat vingt cinq mille dugal recours doo defee defeeti dara booy yi da leen di fay cent mille ñu dépensé quatre cent mille wala ñu dépensé cinq cent mille ci sëriñ ci lépp préparation. lépp mhm. kon aussi tamit gars yi dañuy voyage sax booy dañuy voyage sax léegi euh, ku mel ne Cité bu Ngor moo ngi noonu voyage na mu ngi Maroc ku ci mel ne Baba Jaxal dem na Maroc dem nañ Maroc ah. te loolu yëpp ñaar ñooñu dem Maroc ñaar ñaari boo yooyu dem Maroc nag ñaari boo yooyu dem Maroc dañoo war a uti doole dañu war a uti doole ñaari boo yooyu dem Maroc dañu war a uti doole parce que dañoo bokk ci làmb dañoo war a indi doole indi état ku mel ni Baba Jaxal mbër la boo xam ne bu jógee jàmm gën si kàmbaaw ñëpp jug topp sam-sam gépp jóg ñëpp topp ko sam-sam xale boo xam ne ndaanaan la ku ci mel ni si tëbu ngor comme gis nga ko dernier combat am li mu indi ci arène bi mais comme li nga ko waxee làmb doole daf ci baax mhm. moo tax seen génn yi vraiment dalay won ni ñoom am na lu ñu bëgg nangu nañ ne dañoo juum te li leen manqué xam nañ ko moom lañ dem uti ji vraiment daal faison bi ñu jëm fàllu ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm bi ñaanal amateur yi jàmm góorandooy balaa ñoo ñëwaat ci balaa ñoo ñëwaat ci waxtaan bi dañuy dem bégal amateurs yi ci mm-hmm. kàddu yi nga xam ne ci tamit euh, Siteu wax na ko ci diggante moom ak Lac de mm-hmm. waaye tamit dinañ dem xooli Lac de Guiers mi nga xam ne wax na tamit ci diggante moom ak Siteu di ñaari adversaires yoo xam si ni mm-hmm. doy na waar doy na waar doy na waar xam nga ku ne xam la de guerre musuta daanu mhm. ci diggante contre moom Eumeu Sène ci la ci benn jël laam mhm. ah, mu war a bëri xale boo xam ne tamit moom itamit dafa nekk ci yoon mhm. waaye tamit ñu xool mbokk yi fan la wànnanti mujjee ki ba tam que le gañ waaye mbokk yi dañuy dem euh, ànd ak rési ñu dem déglu Siteu ñu daal di ñëwaat waaye tamit teewul Siteu am na lu mu def bërki demoo Ndiaye dinañ ci ñëw image boobu dinañ leen ko won ak Aline Badara waaye son bi leen na nañ ñi tamit jeebaa jibaa ah son bi di gisoo son. non macha allah xam nga son bi dafa neex c'est xam nga booy ci ne. ah seen wax bariwul. te dañuy liggéey fulla ak fayda. non fii te bu ñu la xasee takkal micro nee naa la saye. dëgg la dootuñu jaabante. man fu ne plateau bu demee mais dama ne la leeral moom boo fi ñëwee saa boo ñëwee dangay gis. innovation yi benn plateau yi ngay toog yëpp. loolu liggéey toog ci plateau bu neex. am solo kenn du la déranger doo kenn kuy dox. waaw ñu ngi rafetlu ah. liggéey bi di féliciter vraiment la directeur général di féliciter aussi tamit effectif bi yëpp parce que ku yokkul da ngaa wàññi te leeral dafa yokk. dafa yokk de fàqat nag nekk émission boo xamante ni rendez-vous la. mais man directeur bi borom kër yi dama koy gëj a gis ko des fois dama koy gëj a gis xaw ma lan la quoi dama koy gëj a gis. moom nag day daw rek amul arrêt de. daal jee toogal de. ay ci Aline Badara bu baaxee ñu dem seetaani loolu te daal di ñëwaat laay bu deef mooy jàmm mi rek la am bëgg rek laa am lii li soob li soobu yàlla moom moo ko xam waaw te moom moo ko attan aussi kon tey boo xoolee tey le 5 novembre laa waroon a bëre ñu indi ma le 19 novembre amul différence. waaw kon ñu si wax waa jàmbaar les go di leen wax ne promo bi il est temps mu tàmbali. waaw il est temps. parce que ah parce que bis bu mag la. wala ñoom le 19 bi pare wuñu boobu. alaaji Mansour wala Assane. Assane ah. waaw mais Assane xanaa nga ragal boog lay xaar waaw bis bi man pare naa de pare naa de man lu kum la 19 ngeen waa. waaw waaw moom yàgg na pare. lande guerre yàgg na pare. waaw mais boobu léegi nag maa ngi ci maa ngi ci li ma war a nekk. parce que tey bëre ku mel ni lande guerre. si naka. Ah, parce que responsabilité yi si nekk. ok il faut nga matir ok il faut nga nekk ki nga xamante ne tey Lac ku ko xam. xam ne Lac de nekkul cuune. ah deuxième la chose mooy Lac de dafa nekk mbër boo xamante ne tey ku soxorul. ok ku mu gënul nekk champion fii Sénégal gënoo ko nekk champion parce que tey yow mun nga ma génneel ay défaites Lac de Guiers ama rek ko daan ok kon kooku champion bu mag la kon tey kon kooku champion la boo xamante ne man boo ma waxee pare na wala parewul man gëm naa ko gëm naa ne pare na. mais yow leneen a ngi nii loo xam ne xamoo lu mu doon. ko. waaw leneen mooy loo xamante ne yow xamoo ku lu mu doon. ok kon tey man lii ma nekk nii tey damay sant yàlla li tax may sant yàlla mooy tey. ok ñu bari tey séntu woon ñu tey dinaa ñëw si làmb bay bëreeg Lac waaw kon tey loolu bu ma ko amee maam ku mel ni Lac de Guiers il faut nga jox ko cër man Lac de Guiers boo mën a dem wala jotaay bu ma mën a dem koo mën a dégg mi wax danaa non Siteu amul dara si Lac de Guiers. amul dara. waaw léegi lan la ñuy wax. doole waaw doole kan moo waaw kon sa waay kon la moo tax nga war ma tiital doole. waaw léegi man du ma jaamu yàlla yàlla mënuma may doole. waaw kon jeex na. waaw non li pare loolu yàlla moo xam mais dama la ne Lac de Guiers man maa njëkk a pare pour jëflante ak moom. mais lan moo la gën a parce que dégg naa si communication yu bëri da ngay wax loolu Lac de Guiers man maa la jëlal sama bopp kenn ku jël man maa la jëlal la sama bopp lan la dafa am la nga bëgg a wane wala. waaw li tax li tax li tax ma war ma jël ko mooy. dafa am ñu bari ñoo xamante ne tey si àdduna boo xoolee tey dañuy jël Lac de Guiers da ngay minimiser ok te Lac moo ëpp qualité yëpp lan ka Lac de Guiers moo ëpp leen moo leen ëppale qualité yëpp ok kon tey man bu ma demee tey ba jël ko nit boobu man day baax ma xamal nit ñi ki ma jël kan la jëluma kuy tëdd di nelaw rek voilà jëluma koo xamal da ngay ñëw rek jëlee ko fu mu nekk voilà léegi nag man damay ñaan yàlla argument yooyu nga xamante ni moo koy jëlee man ma jëm ko dem uti ko xaw ma yaa dégg waaw ba mu mat si mat sëkk léegi bu may ñëw di jëflanteeg moom pour yàlla dimbali ma day yombu waaw léegi damay bañ a nax sama bopp. xam nga li la waaw li ma war mooy nekk naa ci chaque jour maa ngi ci fula bi maa ngi koy dégager cër bi ma ko war a jox dinaa ko jox ba keneen ki toog fële ah du ne Siteu xamul si li mu dugg waaw xam si li mu dugg pare pour jël responsabilité boobu waaw moo tax tey ma jox ko cër bu moom. mais bisu combat ba boo ma gisee may dox rek nga xam ne kii dafa de waaw maanaam yërëmul boppam. lan la war mu defaat si si yoonu làmbam. daan Lac de Guiers. waaye Lac kay daan ko koy mooy sama ñoom ñëpp man maa seen roi des arènes. man bu ma daanee Lac de la moo ma dese si làmb. waaw kon jeex na mag la parce que ci ay communication boo ko seetaanee rek du la manque mukk de respect. te ñun bañ ci tollee euh, dañoo jox suñuy mag suñuy pàpp respect ba ñu am xool yu yëkkatu may ñu sens kon donc bu ñu gisee xale mel ni comme si tam mu doxalee noonu ah ñun tam dañ koy yëkkati may ko sens bi rek loolu rek la waaw wu ñu benn boor nag waaw dépassé wuñu benn boor làmb nag ci biir géew gi mën nañ mën nañ def lu ñu neex parce que làmb la ñu wax mais en dehors de làmb boo xoolee bu combat bi taxawee ba léegi. déggoo ko mukk fu mu waxee Lac de Guiers lu ñaaw yaa ngi dégg suñu mag la yaa ngi def na fi lu nekk te duma ko manque respect kon donc loolu noonu dafa nekk loo xamante ne tey dafa neex ci xool moom moo tax ma am xoolu may ko sens waaw. ci cadre xaalis. non ñun euh, du palmarès moo ñu boole ma ak moom yaa ngi dégg du dara man maa am xolu may ko sens parce que lam ma wan la. lam ma wan yar gam ma wan est-ce que mës ngeen ko mu dépassé Lac de Guiers 2. ndax face to face amagul. waaw ba tey nañu xaar rek. yaa man waaw non t'inquiète xam naa ne booy yi ñoom xam nga la tarkindaa yi moom c'est normal ñu doxalee noonu ñoom ñépp parce que seen mbër lañu indi il faut ñu xumbal def li ñuy def loolu rek la. <laughs> tey Siteu dañ koo laaj ne ko pour daan Lac de lan la lay apporter mu ne ku daan Lac de mën na nga wax nekk nga roi de arènes ndax ay defetam bariwul loolu tey boo déggee loolu si taw ko. waaw rafetlu ko rek raq bu ñàkk ñaan la rek yaa ngi ne raq bu ñàkk ñaan la te mënoon na waxee neneen mais dañ ko laaj ne ci daan la déggee mel ni ku ku jël roi de arènes xaw ma la loolu moo ko dàqal <laughs> mais la déggee kaful réewul de. non man man kaf du ma kaf sax du ma fo man bës bu ma mënti jël ak noo mënti mel. Euh, maa ngi ko seetaan mu ne la dëgër bu ma xeebee ma ma laq laq la laq daay. waaw waaw waaw ma la xam la dëgër euh, bu ma xeebee ma laq daayam. Euh, dommage dafa fekk mbër bi nga xamante ne moom du xeeb mbër. waa man moom du ma xeeb mbër tenket même baax loolu moom na ci xelam dal. ngeen day jëflante ak yow. waaw c'est normal sañ naa ba ñu jëflante man ñu jox ko avance jox ma avance non day jëf dina dinaa jëf dina jëflanteek man. non loolu moom même bu moom moom sax xam na dina jëflante man. kan moom. waaw loolu dañuy bàyyi ba ñu yegg ci géew yegg guñ ci fu mu ne nii. Ah. waaw parce que mënu ko wax loo xamante ne maanaam euh, luy xajamal sama diggante man ak moom la parce que am naa loo xamante ne ruusee naa ko tuuti sama diggante ndax jaayu baar ay

naa yaayu mbaar njaay mooy tarkindaa yi ku jiite tarkindaa yi muy yal mbin bu mag bi sitta Baye Fall bi jërëjëf mbokk yi jërëjëf loolu nga xam si ni moom ngeen jot seetaan dox si Siteu Lac waaye tamit gis ngeen euh, loolu lël bi nga xam si ni Siteu defoon na ko bu yaa bu yàggul dara bi ñu jógee màggal wax dëgg yàlla jong euh, xarafal xale yi lu tolloog 300 personnes mu xarafal leen ah, loolu dinañ ci jokk tuuti ci kanam euh, président euh, fondation bi muy góor a bàyyi ma say mi nga xam ne ñoom ñoo ci doon liggéey dinañ jokk moom ñu waxtaan ak moom waaye tamit dégg ngeen kàddu yi nga xam ni la déggeen ak Siteu waxtaan nañ ko ci ñoom ñaar jokkalante ay kàddu mu nekk kàddu yu rafet nag mu nekk kàddu yu rafet nag mu nekk kàddu yoo xam ne ku ko déglu di nga xam ne ñoom ñaar ñuy joxante nañ cër lay xew nag après xamaguñ waaye coow dina am ñoom ñaar dinañ xas-xas loo lii nii lépp dañuy raam rek dañuy neng nengal rek waaye coow dina am ku si nekk rek yat bi dina la dal ñoom ñaar ñëpp dinañ coow mu nekk loo xam si lu lu rafet la ñu siy gërëm Mansour Ba bu baax a baax ak Papa Sow ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax gorondooy image bi nga seetaan sànq te noo ko dundee. ci diggante Papa Sow euh, ak la de vraiment ñuy félicité structure bi taxawal combat bi muy jàmbaar production vraiment gis nañ le PDG Mansour. muy nekk mhm. nit ku baax. Mhm. nit koo xamante nit ku ouvert nit ku dal. mais nag noonu la mën a mel parce que papaam noonu la mel. muy père ba mhm. dafa nuyu dafa niru papaam. vraiment Mansour man li ma gën a neex moom mooy dafa dal. ba pare posé. Eh. mu mënoon ñëw ci làmb di yëkkati ay mbagg wala muy ñëw di wane boppam mais nit ku dal la et nit ku yaru la te nit kuy déglu ay mais koo gis muy def ci benn affaire rek te mhm. yàlla rek tax mhm. sunu borom dalay fay mais booy def affaire boo booy def dara di ci yëg yëg succès wala nga mhm. ciy jaay affaire doo ci am dara vraiment muy nit gis mu koy def tamit du ci am dara mais booy def dara te yàlla tax sunu borom dalay fay Mansour li muy def ci làmb yëpp Sénégal gis nañ ko Sénégal bàyyi nañ ko xel mu ngi def social boo xamante ni boolewu ci wax vraiment muy nit ku baax. ñu koy mhm. remercier de passage. Mhm. di nuyu aussi entourage am ñoom Papa Sow ñoom assurance. vraiment ñoom ñi nga xamante ni. assurance sama boy la. vraiment waaw ñoom Papa Gueye xeer. <laughs> Papa Gueye vraiment ñoom ñëpp gars vraiment ay nit yu sonn nañu ci jàmbaar production. ñun di ñaanal yàlla suñu borom defal leen ndam ci combat yi nga xamante ne mu ngi suñu kanam. parce que mhm. làmb dafa laaj maanaam ay nit yoo xamante ne ñu koy yóbbu ci beneen niveau. parce que tey boo xoolee tey ku mel ni Luc Nicolas Enco ku ci mel ni suñu père Gaston dafa tey boo xoolee nouvelle génération bii di mujjee ñëw fàllu ñoo war a yóbbu làmb ci cachet dem bay mbër di fayeeku 500 millions sponsor yi gën a ñëw dugal seen biir seen loxo loolu nag dañ koy xaar si relève bii di ñëw pour mhm. war a yóbbu mhm. làmb ci beneen level mhm. vraiment moo tax ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm ci journée bi di féliciter aussi tamit Siteu ci geste noble bi mu def nii xalafalu ma trois 300 xale gis nga dafa am acte yoo xamante ni fàllu mhm. bu la yàlla defee kilifa mhm. ndax kilifa yàlla suñu borom moo koy def nit mhm. xëñ na ci aasam xale la mais du jëf-jëfu xale surtout saa bu jëfee nga naw ko te fii lañ leen di xaar maanaam nit su fekkee yàlla dafa la cëral am lu mu la jox ci gox boo jógee ñëpp jóg topp la dafay laaj des fois ngay delloo wax gox bi njukkal te lii muy def nii gis nañ ko ci fondation bi mu créé di def social di parce que boo xoolee boo xoolee lii nga image yi ngay gis nii ay xale yoo xam ne xale yu ndaw xale yu ndaw xale yu ndaw xale yu ndaw am na ñoo xam ne si ni wax dëgg yàlla mhm. amuñu 2500 wala 7500 yu ñu xarafalee seen ay doom amuñu ko parce que taluñu ko ndax lan ñoo ngi wuti lu seen njaboot lekk waaye nag boo jëkkatee sa alal mhm. nga dem fekk ay xale ñu too ay xale nga yóbbu leen ci hôpital yu gën a mag ci hôpital yi xarafal leen ba pare nag mhm. defal leen kasat defal leen kasat nga wëlbatiku lan demee ba rayal leen nag defal leen feet solo leen ay yére jasineer vraiment def na loolu nit nag bu defee lu baax dañ ko nekk ci làmb mhm. ñu ngi koy rafetlu di ko ñaanal yàlla suñu borom jàppale ko parce que gis nga nii xam nga lii mu def nii Ama Baldé da ci Ama Baldé da ci kontaan da ci kontaan lii mu def nii Modou Lô da ci kontaan la dëgër da ci kontaan keneen ak keneen Balla Gaye da ci kontaan mbër benn mbër bu defee lu baax parce que des fois da ngay dégg ñu naan mbër yi amuñu kóllëre mbër yi dañuy wor mm. mais geste yii pour que maanaam mais am na ñoo xam ne duñu ay mbër am na ñoo xam ne duñu ay mbër mais dañuy war dañuy war mais boo xoolee def lu baax léegi amatu solo da ngay dimbali nit da ngay dimbali nit nga wëlbatiku mu nekk say tànk dëgg la dëgg la di si def ay affaire yu doy dëgg la moo tax lii mu def nii vraiment lu ñu lu waa làmb di kontaan la di ko ci ñaanal yàlla defal ko ndam te du c'est la première fois gis nañ mu jël ay jakarta jox ay frère ñu di ci liggéey gis nañ mbënd bi ñëw mu jënd ay moto pompe dugal ko ci biir ndox mi. ñoo ngi ci nuyu DG DG wëcc. DG wëcc. DG wëcc te yooyu sunu xarit ñoo ngi lay nuyu baax a baax. mën nga wax ne tey taxawaayu maire la taxaw ci gox bi mu dëkk ndax xam na ni moom maanaam nit la boo xamante ni bu jógee xale yi ñooy jug topp ko kon moom dooleem xale yi la kon moom fàttewul xale yi. waaye tamit tamit remercier aussi Lac de Guiers 2 ci entourage am. ak mhm. maanaam communication bu jaar yoon mu def. Mhm. parce que gis nga mbëri mag yi maanaam dafa am communication boo xam ne fa lañ leen di xaar mhm. te Lac de Guiers 2 gis nañ mu nekk benn mbër boo xamante ni saa bu yëkkatee kàddoom wax rek nga naw ko. man man nekk mbër mu yaru nekk mbër boo xamante ni musuma koo dégg ci kàddu yu ñaaw ci kàddu yu ñagas wala kàddu yu ñaaw te foofu lañ leen di xaar parce que tey Fallou ñu ko liggéey ba mu yegg si fii mm-hmm. tey moom mu ngi may Siteu chance mais moom fàttaliku na bi ko Yékini di may chance mm-hmm. parce que ñoom Yékini ñoo liggéey làmb Moustapha Gueye ñoom ñoom ñu nekk ci seen ginnaaw jël relève bi te ñoom aussi dañuy jóge fii dañuy dem ñoom Siteu ñi dañuy ñëw ñoom Siteu dañ fiy dem booy ndaw yi ci suuf ñoom Liss Ndiago dañuy ñëw ak ñoom ak ñoom Laurent ak booy yi nga xamante ni ñoo nekk ci suuf ñoom booy Diop deux ay booy Diop deux caatu fora xam nga ñoom caatu fora booy nga ni ñu suuf di ñëw ñu ngi ñëw kon tey lamb dafay am relève ay ñoom yille ñoom yille xam nga booy yooyu boo leen xoolee xam nga ni ñu ngi ci yoon mhm. kon lamb dafa jaaru mu am relève relève ni mu amee ci mbër yi noonu la amee ci promoteurs yi amee ko ci amateurs yi amee ko ci ñëpp kon tamit nit il faut nga préparer sa relève mhm. mais la déguerre de ñu ngi koy féliciter di ñaan yàlla combat boobu noonu lépp lu ci promoteur bëgg rek yàlla defal ko ci ndam. mais kaddu kaddu yu kaddu yu rafet yi la daggee di yëkkati. Mhm. di ko di ko jokkalanteeg Siteu. Mhm. muy kaddu yu rafet. parce que bu fekkoon ne Siteu dafa am lu mu ko leneen rek xëy na du ko may sens. non non mais loolu tey jii boo bëggee mu may la sens. Mhm. da nga koy way yar ak teggin waaye bu ne la daggee mi da nga bëgg mu may la sens ngay taxaw fee di jokkalanteeg moom ay yenn kaddu. wax dëgg yàlla vraiment du kii parce que la daggee ku mën a waxal di teyaan la rek tax tax mais la daggee nit ku baax la vraiment baax la nit la boo xam si wax dëgg yàlla nit ku oyof la te jàmbaar la et puis wax dëgg yàlla carrière am mm-hmm. yàqu ci dara non non non yàqu ci dara nag waaye tamit góorandooy maa ngi nuyu jaawoo jaaw tisi de moo ma def nii de jaawoo jaaw tisi moo ma def nii mm-hmm. defal ko jàmm mu nga sa tëngéej mu ngi si tëngéej féetu mm-hmm. police bi di taxaw première place deuxième place jaawoo jaaw tisee nga fa di xale boo xam ci nii maa ngi moom ba ñuy ànd dara xewagul dippi massa caaroy mot mu topp ma rek lu baax ci man rek mu ne ma fàllu jëlal te gàmm gi incha allah rabbi noonu la ma waree jox mhm. grand bubu bu toj ma yóbbu ko Tiwaawan kon di ko ñaana sunu borom defal ko jàmm jaawo jaaw fii mu génn gis nga man tamit Tidiane Daabo moo jaar fii Tidiane Daabo nekk benn commerçant bu nekk foofu ci HLM mhm. dendeek pharmacie bi di jaay gesner di jaay bazin riche di jaay ay broderie autriche di jaay ay tissus yu am solo Tidiane Dabo nekk foofu ci marché HLM. ku la defal lu baax de mun nañu taxawee wax ko vraiment maa ngi koy remercier passage. di nuyu Bouba di nuyu waa boutique bi yëpp. ñu ngi jëm ñu ngi jëm Gambie. ci combat bu rëy. diggante Ama Baldé sëll bu ndaw nga xam ne Sénégal gépp ñu ngi toog di ko xaar. mu war a bëreeg Modou le les des arènes. di koo xam ne neex a faral dimanche. mais combat boobu ak noonu foo leen ci toll. en tant que président. waaw Fallou vraiment muy combat royal di combat boo xamante ni combat bu ñu yàgg xaar la ñun amateurs yi Sénégal yàgg ko xaar àdduna yàgg ko xaar mais nag bul fàtte ni Eumeu Sène ak Tapha aussi war nañ fa dem jàkkaarloo nekk ñaari combat yoo xamante ni ay combat capital la benn bi vraiment nekk combat boo xamante ni le 12 novembre la war a nekk bientôt arène nationale ñu bootal kook nag combat yu doy waar yoo xamante ni benn bu ci nekk mat nga grand combat mhm. ndax boo jëlee ku mel ni mbay guy gi boole ko ki nga xamante ni tey mooy marle bu géejawaay loolu doyoon na grand combat nga jël ki nga xam ne mooy kéwél boole ko ak ki nga xam ne mooy alburi nga xamante ni phénomène la boo xamante ni ci làmb kenn dootu ko natable waaye Baye Ndiaye li mu bëgg a tëgg nii lan la nga jël ki nga xamante ni tey mooy euh, mooy euh, Mathieu Pereira bi nga xamante ni moo sës si ginnaaw la de boole ko ak Jacob Baldé ñu yaakaar ne fa lay yam mu jël wuli wuli waat boole ko ak ki nga xam ni mooy Boucher Ketchup yaa ngi dégg jël maanaam ki nga xamante ni tey jii nii mën nañu wax ne mooy Alaaji Mbay boole ko ak ki nga xamante ni mooy ñagas kon tey jii yaakaar naa ni bis boobu bis la boo xamante ni bis bu àdduna di xaar la mu nekk combat bu doy waar diggante Tapha ak Eumeu Sène di ñaari mbër yoo xamante ni kenn du ci deltu ginnaaw di ay jàmbaar di mbër yoo xamante ni buñ jógee seen gox topp ñu yaakaar ne fa lay yam mu ànd ak Luc Nicolas Enco ñu def ko production tëgg combat bi nga xamante ni moo jaaxaloon àdduna mm-hmm. nga xamante ni fa lañ doon xaar ñun ku koy tëgg lañ doon wax est-ce que combat bi dina am. dina am ñu dem ba nit ñëpp. parce que bari na bari na am na ñoo xam ne ñu ngi laaj am na ñoo xam ne ñu ngi laaj. waaw combat combat bi est-ce que duñ ko duñ ko bëree Gambie. Gambie non non parce que ñu bëri sénégalais yu bëri. parce que bi ñu gisee affiche bi ñu ngi laaj ba xam combat bi dinañ ko bëree Gambie wala duñ ko bëree Gambie. Mm, mm, mm. waaye lu mën a am mbokk yi dinañ leen ko toppal. dinañ leen ko toppal. ba mu jeex parce que combat bi yàlla def na du amee Gambie face à face moom mooy amee Gambie ci teewaayu président Adama Barrow waaw war doon ñaari fan benn journée bi yaakaar naa dîner de gala la war a doon boo xam ni Pape Diouf moo ko war a way ak génération consciente hmm. beneen bis bi aussi nekk tournoi nekk benn face to boo xamante ni dañuy boole ñeenti mbër yi war a bëri grand combat yi mag yi muy diggante tafaatin ak ki nga xam ne mooy euh, Eumeu Sène jël Ama Baldé boole ko ak Modou mais boole aussi nag combat yi ndaw yi war a am le 12 novembre yëpp. ñoom ñëpp si Gambie boole leen Gambie ci benn plateau. mu doon plateau boo xamee ne nag plateau bu spécial la ah. moo tax si mu nekk presse bi ñëpp takk nañu ba jóg takk nañu. pour ànd ak ki nga xamante ni mooy. nañu def ndànk rek nañu def ndànk rek. Albourakh moom dina yóbbu ñëpp. vraiment tey leen te def ndànk te liggéey liggéey bu doy waar. liggéey bu doy waar waaw ku ci dem nag Gàmbi na nga xam ne Gàmbi sama yëf la. yëf la waaw. waaw presse bi ku dem Gàmbi mm. Gàmbi sama yëf la maa ko moom. dëgg la waaw maa moom Gàmbi. waaw Gàmbi maa ko moom vraiment bi nga xamante ni moo décroché combat bi di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm parce que li ñu def innovation la innovation barki démb la ñu jógee Touba def ay xéewal yóbbu ko sëñ Muntaxa ñu jógee foofu fa la ñuy yem ñu mhm. dem président bi ak ñi nga xamante ne ñooy gouvernement ba fa nekk yépp ñu dalal leen saafoonteeg ñoom demuñu mais image yi gis nañ ko vraiment mu nekk lu rafet kon tey bu ñu waree jëlaat li nga xamante ni mooy face to face jéggi frontières yi dem ba Gambie def ko fa loolu innovation la te lamb dafa soxla ay innovation dafa soxla ay yu bees mhm. ay création ñu jëlee làmb fii yóbbu ko Gambie ñu jëlee fi signature yóbbu ko Gambie parce que Gambie mooy Sénégal. vraiment foofu aussi ñu ngi ciy félicité Aziz Ndiaye. parce que gis nañ ne benn produit lamb la boo xam ne bi mu bàyyee lamb dafa waroon dem toogi def leneen moo tax foofu duma ma taay di ko wax Aziz Ndiaye Kandji production ñaari nit lañ yoo xam ne lamb dafa leen di sagoo fu ñu toll. Mhm. parce que bi ñu bàyyee lamb dañu jëlaat seen alal jël seen ay produits di ñëw di jàppale waat kon suñ ñu woowee Gambie kenn warut a des fii ñu ngi woo presse bi di woo amateurs yi di woo supporters yi nga xam ne ñoo war a topp ñeenti mbër yi ñu ànd ak yar ànd ak disipline bu ñu demee ñu wane yar ak teggin. non Gambie boo fay dëkku jàmbur moom boo fa demee dëkk jàmbur moom boo fa demee. Mhm. da nga war a ànd ak dal dëkk jàmbur boo fa war a dem mhm. boo fa demee danga xam dëkk ba nga jëm mooy dëkk ban mhm. parce que Gambie du Sénégal xam nga Sénégal moom lu waay neex def. te kenn du la wax dara mais ngal la ku dem Gàmbi na nga na nga silvisé ànd ak yar ànd ak teggin mhm. mhm. def sipot supporté li ngay supporté dem sa dem sa hôtel fi nga dal mhm. wala nga dem sa kër mbokk fi nga dal nga dem sa yoon Ama Baldé ak Modou Lo ay nawle lañ ay nawle lañ ñoom ñaar du ñu dem bay rayante kenn du rayante làmb la la bis bu ne jàll na fi bis bu ne jàll na fi na fi ana mu jeex na ana Modou Lo Balla Gaye bu njëkk ba ni mu meloon coow li bari na histoire bi leen am na ay làmb yu ko dàq te ñoo ngi mm-hmm. fii te ñu ngi mm-hmm. Siteu Siteu la Siteu Siteu Siteu la daguère bis la waaye tamit Siteu Siteu Ama Baldé bis bu ñuy daje mais loolu dëgg la yooy yëpp ay bis la bu ma fekk Sénégal yooyu yëpp ay la yoo xam ne Siteu Ama Baldé moom booy ñaa ak nga xamante ni mooy Modou Lo le premier di bis bu mag diggante fils de Balla Lac Rose nga xamante ni combat du ko dàq combat du combat du ko dàq mais maam la ne ñoom ñooy ubbi saison bi mais Dieye production nga xamante ni mooy président authentique di nit ku baax di nit ku social di koo xamante ni boo ko fekkee Touba bi nga xamante ni mooy Daaru Salaam da nga naan xanaa fii Dieye rek moo fi taalib muy nit ku social nit koo xamante ku taalibe la taalibe la taalibe la te boolewul dara ko wax boo xoolee combat bi mu ñu woo le 22 novembre fii ci arène nationale mu ngi war a dox ci diggante ñaari mbër yoo xamante ni kenn ku ci nekk jàpp nga ne ndam laa ngi sa muy ki nga xamante ni mooy ñaabu ndaw bi nga xamante ni moo génn géejawaay doon phénomène boo xamante ni ñu ngi koy xool ci mbër yenn ca kaw ñu boole ko ak ki nga xamante ni tey mooy euh, Bour Sine bu écurie écurie Bawol nga xamante ni moom it dafa am tardement ca làmb mais heure bi waroon na ko fekk muy bëri ca kaw hmm. ndax ndaanaanu bërikat la dugg géej waaye nag am lu mu fa def daan fa fils de balle kon tey bu retourné ñu boole ko mais ñaabu ndaw lamb war na ko ñaabu ndaw lamb war na ko mën a bàyyi xel bu baax a baax ndax xale la boo xamante ni mm-hmm. bi mu duggee ci làmb mm-hmm. boobu ak léegi gis nañu jéego yu mu ci def waaye tamit gis nañu fulla ak fayda bi mu nekkee ñaabu ndaw lamb mm-hmm. war na ko bàyyi xel bu baax a baax moom ak talfa ay liis njaago ay boor jóob dëgg la ñooñu lamb war na leen a bàyyi xel ay révélation lañ yoo eh. xamante ni vraiment ak ki nga xam ne mooy Tony Junior ay révélation lañ yoo xam ne ñu ngi wane seen ay preuve ci làmb kon làmb nañ jàpp ne am na relève bu ne ci suuf boo xamante ni seen bët yëpp ñu ngi ko teg ci kaw kon te loolu la xaar si ñoom xale yi il faut ñu liggéey pour mën fi jëlee mag ñi ndax ñii fi nekk tey ñoo fi jëlee Mouhamed Ndao Tyson ñoo fi jëlee Moustapha Gueye ñoo fi jële ki nga xamante ni tey mooy Balla Gaye numéro 2 ñoo fi jëlee seen ay moroom kon tey ñoom it dañ leen fi jële te ñu leen fiy jëlee ñu ngi ci suuf di liggéey fàllu vraiment di nuyu ki nga xamante ni mooy monsieur le maire Pape Gueye mu ngi may message léegi di ma wax ni mu ngi seetaan émission bi waaw non kooku suma xarit la vraiment nit ku baax kooku suma xarit nga ñëwal jàpp ci liggéey bi ñëwal jàpp ci émission bi yow suma xarit nga nit la boo xam ni moom itamit duñu tàyyi di ko wax liggéey bi muy liggéey ak ñun wax dëgg yàlla ak wax dëgg yàlla OFTM moom dañ koy gërëm bu baax a baax di nuyu maa ab sa ñu koy nuyu baax a baax muy soxnaam mm-hmm. mu baax lool waaye tamit du ma fàtte laay bu deev kooku suma seex la mm-hmm. ma koy nuyu dumb Dumbuya Senghor suma xarit la mm-hmm. ngi toog këram di ma seetaan ak njaboot jépp maa ngi lay nuyu bu baax a baax yow suma xarit nga kenn nga ci man maa ngi lay nuyu nuyul ma alaaji ak paalaay ñaari booyoo dañuy daw rek dëkk bi réew mi bu ñu ci nekkee foog ñuy waxante lu baax. dëgg réew mi du ñu yor doo to yor sa télé wala nga yor sa caméra di wax lu ñaaw wala ngay wax leneen. Hmm. amul solo. ki ngay wax lu ñaaw xamoo ko. Hmm. ki ngay wax lu bon xamoo ko. Hmm. keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak loolu. mais ñoo ngi ñaan réew mi nañu ñaanal suñu réew mi am jàmm. kilifa yi nañu ñaan ci réew mi am jàmm. kilifa yi nañu ñaanal ndaw ñi ndaw ñi tamit nañu jël cër jox ko mag ñi. ndax xale bu yaruwul du mën a bokk ki mag xale yi foog ñu yaru mhm. xale yi foog ñu ànd ak dal mhm. ndax koppar boo ko bëggee da nga koy liggéey yi xoolal booy booy li ñuy def ci booy dangay gis luuma boo xam ne da ngay gis ay booy teg ay bal mhm. teg ay bal ñetti nit seq ko di tàccoo ko fecc di def lan mais dañoo bëgg lu ñu jaay pour bëgg a yóbbu seen i kër mais booy dañuy bëgg a toog benn mm. une heure de temps ngeen bëgg ay millions mm, millions boo ko bëggee da nga ay millions boo ko ngay takku mm, liggéey yi kon nañu xam ne ne ñun ay ndaw lañu te benn bopp lañu kenn mënu koo xam ñaar nañu xool ñu mel ne ay monsieur le maire Pape Gueye nañu xool ci ñi nga xam ne ñooy ay laay bu deef ñooñu ay ñooñu ay ay ay ay ay ay bonne volonté la ñooñu dañuy dimbali ay nit ku ci mel ni Tafa dafa nekk benn jeune bu nekk Pikine ma gis ko gis nga safar yii nii mën naa la wax ni la képp kuy pikinois rek sa safar Tafa ba yëkkati na alalam def ci te pourtant du maire du bon volonté du dara mais benn jeune la. boo xam ne dafa yàgg fréquenté ñi nga xamante ni ñooy jeunesse bi tafaaba muy respon koo xamante ni un responsable politique bu nekk APR bu nangoo jàppale jeunesse bi. mais yow Moustapha Ba maa ngi koy euh, nuyu de passage di ko ñaanal yàlla. président Gorée yow da ngay politique xanaa. da ngay da ngay am ay xarit politique xam nga tey danga nekk ci làmb ji nekk ci politique. xam nga Fallou ñun ay nekk ay xale aussi yoo xamante ni jeunesse bi aussi dafa am ci ñun yaakaar. Fallou élection maire yi ñu jógee rek vraiment duma ma la nëbbu candidat laa woon ci élection maire yi. waaw loolu après dinañ ko waxtaan ba boole ak Tima parce que man sama émission bi dama am émission dama lay boole ak Tima ngeen waxtaan. vraiment dinaa la boole ak Tima xam naa loolu moo ci gën a xam dara mais man moom ambition mais man il faut ñun ndaw ñi ñi nga xamante ni ñoo fi dëkk ñun ñoo ko mën a porter pour mën ko yóbbu ci beneen niveau. yow yaa ngi ci làmb ji yaa ngi ci politique ñu ngi ci lépp waaw sant yàlla rek Fallou. ñu ngi ci lépp ñu ngi ci lépp. tey euh, gis nañ ngeen ubbi structure bu bees. Mhm. Euh, ngeen nga ne da ngeen di tëgg commencé tëgg làmb. Mhm. Mhm. Euh, mën nañu wax waajtaay bi. mu ngeen commencé dugg ci làmb ak léegi. duggagu yéen a ngi dugg ci làmb sax am ngeen date ci combat yi ngeen jëm wala amagoo leen date. waaw foofu vraiment dinaa ci sawar wax Fallou muy benn structure bu ñu ubbi muy Go Salam Production. nekk benn structure boo xamante ni yaakaar naa taxawal nañu grand combat bi mu dara dox ci diggante booy moroon bu Pikine ak ki nga xam ne mooy Boy Lo bu Thiaroye di ñaari révélation yoo xam ne dañu gis seen palmarès gis seen parcours ci làmb mu nekk parcours bu jaar yoon ki nga xam ne mooy Boy Lo day wàcc lutte simple bi di bëreek ay moroom di leen daan tegale lu mat 9 victoire amul defet ki nga xamante ni mooy Boy Maroon aussi tamit ñu gis ko la même chose mu tegale 8 victoire am benn défaite ñu gis ko moom it muy compétir ci lutte di tegale ay mbër di leen daan kuy daan Doudou Sané di daan ñoom Serigne Ndiaye numéro 2 di daan ponkal yi nga xam ne ñoo ne ci lutte simple bi tegale huit victoire d'affilée ñu gis ne ñaari mbër yi ay mbër la ñu war a boole ñu bëreloo leen grand combat structure bi jóg pour jàppale leen ñu taxawal grand combat bi léegi rek bi may ñëw ñu ngi ciy waxtaan yaakaar naa ne ñu ngi ci combat yi ndaw yi di xool nu ñu koy organiser ba taxawal ko parce que liñ ci jublu mooy jàppale jeunesse bi Fallou gis nga lamb ji bu promoteur yi hmm. mbër yi jeex déedéet mbër yi ñu ngi wàcc terrain bi chaque jour di entraîner yaa ngi wax léegi ki nga xam ne mooy Baba Jaxal ñoom ñi nga xamante ni ku ci mel ni ñaabu ndaw presque deux mois ni nii mu ngi Maroc di entraîné yéen a tëggoon euh, Baba Jaxal ñoo tëggoon Baba Jaxal combat Jëndeer production ak ki nga xamante ni tey mooy léegi yaa Jëndeer mooy kii àndatoo leen non Jëndeer ñu ngi liggéey maanaam man dama nekk benn nit boo xamante ni fàllu képp ku ñëw xanaa dafa am dafa am lu jot a xew ci biir non dara xewul ñu képp ku ñëw maanaam dénk ma sa bopp. pour góorandoo yow demoon nga ànd ak jandeer dinañu ànd liggéey nga war a tikku ànd ak keneen. boo xoolee tey jii nii confiance bi ma àndee ak jandeer ànd ak ñoom ci journée ba journée bi jeex ñuy dëgmal beneen journée noonu laa àndee ki nga xamante ni tey jii nii mooy Pape Thialis ci journée bi mu mujjee tëgg diggante Tigre Junior ak ki nga xam ne mooy booy ñàgg maanaam gis nga Fallou nit bu amee ci yow confiance wóolu la jiital la ci ay mbiram da ànd moom ba jeex tey noonu laa àndee ak Gaston production noonu ak Albourakh production noonu laa àndee ak képp koo xam ne wóolu nga ma woo ma ci sa journée ne ma am naa la ci yow yaakaar pour ñu ànd liggéey parce que confiance rek sàll mooy nit. Mhm. man damay sonn sax ci ay promoteurs yoo xam duñ ma sax woo pour seen journée réussir maa ngi woo amateurs yi maa ngi sensibiliser Fallou ci loo xamante ni defuma ko pour lenn lu dul làmb jëm kanam jàppale promoteurs yi jàppale amateur yi loolu nag tey jii nii suñ ko dee def pour jàppale ndaw ñi la parce que li ma la wax sànq mooy ñëwaat rek gis nga réew boo ci dëkkee bul toog di xaar loola réew defal da ngay xool loo defal réew mi parce tamit ñun ñëpp ay ndaw lañ kenn ku ci nekk am nga ci looy yëngu man Fallou boo ma fekkee sama atelier téer laa damay ñaw yaakaaruma ci làmb mais nag képp ku ma wóolu am ci man confiance woo ma pour ma jàppale la ci sa structure pour sa mbir jëm kanam. Mhm. damay bàyyi lépp lu may def ñëw jàppale parce que làmb mooy suñu sport national. Mhm. mooy sport bi ñu xamante ni ñun moom lañ taamu. Mhm. tey jii nii fu ma toll fu ma dox ñu ne ma góorandooy président amateur fu ma dugg tey jii lépp lu may lijjanti day yomb mën naa la wax ne tey am naa tey jii nii accès yu bari lan moo ma ko may lan ma ko may kon làmb du ma ko fooye lépp loo xamante ne ñoo ngi ko ciy def ci lu baax fu ma ko gis dinaa ci teg sama tànk. man ci loolu laa nekk képp ku ma wóolu aussi woo ma ci sa journée dinaa ànd ak yow liggéey pour yàlla defal la réussite totale xaaruma ci nag dara vraiment. ay jërëjëf jërëjëf président Gora Ndoye ñoo ngi lay nuyu baax a baax bëggoon naa ba Aline Badara boo mënee may ma jël président euh, président fondation Tarkinda social parce que mënut a dugg noonu may ma tuuti rek. waaw waaw euh, euh, temps bi temps bi matewu ko xëy na beneen yoon dinaa ko invité parce que bëggoon naa ko dugal ci li nga xam ne mooy émission bi waaye tamit xam naa ne boobu ba léegi mu ngi woote te mënut a dugg waaye tamit ñu koy jéglu baax a baax ñoo koy jégalu góor a bàyyi ma say ñoo ngi koy nuyu baax baax di nuyu suma xarit a bàyyi ma say moom moo yor ndeysaan nit ku baax waaw moom moo eh, nit koo xam ne nit ku baax gis nañu lu mu def ci màggal gi gis nañu lépp loo xam ne ànd na kook borom këram ànd ko ki mbokkam def ko ci màggal gi ñu koy nuyu bu baax a baax a baax seex Cheikh Thiam noro waroon naa ñëw sa kër ci màggal gi mais mënuma fa ñëw ndax liggéey bi nga xam ne yoroon nañ ko ci fële ci màggal gi ak leeral TV ñoo ngi jéggul baax a baax baddo ma xarit la moom chaque année dama daan dem këram waaye tamit liggéeyu màggal gi chaque année rek day xat ñoo ngi ciy jéggalu bu baax a baax a baax mais ren euh, ci kàttanu yàlla dinañ ànd ak tra tramoto Aliou Traoré dinañ ko gunge bu baax a baax ci gàmm gi ñu jël moom ak daaw Daawda ak waa kër gépp ak famille Traoré ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ñaanal suñu borom defal leen jàmm kàddu gi mujj gi góoroo ba ma la gërëmee nga xam ne yow kër gi sa kër la wax dëgg yàlla say rakk lañu say xarit lañ say lépp lu bari dañ koy dañ koy lijjanti sax yow yaa ngi siy jàppale di ñu si dimbali parce que nit bu la defalee lu baax rek wax ko ñu gannaaw bi ñu la gërëmee sant la baax a baax kàddu gi mujj gi lan la góor a waaw Fallou vraiment di am contentement bu baax di wax ni fii moom suñu kër la moo tax saa yoo ñu wooyee rek ñu bàyyi li ñuy def yëpp ñëw mhm. vraiment di santaat yàlla bu baax rek di santaat amateurs yi ci confiance bi nga xam ne jox nañu ko parce que li may faral di wax chaque jour rek ndombaay tànk bi ñu jox du daraja du alal du dara confiance la bu am suñu diggante ñun ak ñoom vraiment ñu ci remercier aussi ñi nga xam ñu ngi ci diaspora bi Fallou toog nit woo ma ba Europe du ma mu tudd jox. bari na ñoo woo rek. dañ lay woo dëgg la parce que liggéey nit bu ñu ñoom Dev vraiment di nuyu. sama téléphone damaa dem ba màgg damaa dem ba màggal téléphone bi ne tëj. ne dootul def waaw loolu moom vraiment du yoon vraiment ñu ngi nuyu diaspora bi. di nuyu ki nga xam ne may ma téléphone Daam ah. <laughs> Dieng waaw monsieur musuma ko ñaan mais xam naa ne daam dina def loolu du yàgg mu doon ma téléphone di nuyu vraiment Abdoulahat Ndiaye muy nit ku baax Abdoulahat Ndiaye sonn ci làmbul di koo xamante ni du ñu xëy suba ba ngoonte déggante wu ñaar yoon wala ñett yoon te lépp lu muy dox ci làmb rek lu koy jëmale kanam nit ku am coloré muy nit ku am coloré di nit ku baax di wax ni mu waajal Njaasaan nag Njaasaan nag rendez boo xamante ni Fallou ren maa la fa invité danay ñëw ak sama boo xam ne axlu làmb yëpp fa la ñu daje Abdoulaye di fa teral doomu aadama yi di fa def ay bernde mook suñu papa El Hadj Bekaay Mbaye ñu ngi koy nuyu di nuyu ñoom Pa Modou di nuyu ñoom Modou Mbaye mais di wax ni daal vraiment ñu ngi nuyu vraiment amateurs yi di nuyu supporters yi di ñaan yàlla saison bi ñu jëm Fallou yàlla doon saison xéewal promoteurs yàlla jàppale leen ñu am ay dat yu baax làmb gën a yëkkati ko làmb gën ci gis boppam di wax ni Dieye production mu ngi woo amateurs yi aussi le 22 octobre foofu ci arène nationale bi ci diggante Bour Sine ak ki nga xamante ni tey jii nii mooy euh, mooy ñaabu euh, ndaw ci combat boo xamante ni dañ ko bootal ak ay combat yu am solo. jën jërëjëf loolu loolu beneen yoon dinañ ci ñëw. parce que temps bi dina di la wax ne Fallou bi jaale rek suñu benn frère muy Bara Fass moom laa waroon a ubbee sax. ndax dafa am suñu frère boo xam ne Bara Fass mu ngi ba Jurbel moom ngay gis chaque jour mooy suñu mooy suñu euh, ki nga xam ne mooy suñu mooy suñu nan laa la mën a expliquer mooy suñu secrétaire général ñun association des amateurs papaam dafa xëy tey wàññeeku vraiment depuis ce matin ba léegi mën naa wax jeune amateur ci ci njaal lañ nekkee depuis ce matin ba léegi ñoo ngi koy jaale papaam boobu génn àdduna di ko jaale yaayam ndax moom yaayam sama xarit la di jaale maam jaara tamit maam jaara su ma dëkkandoo la su ma dëkkandoo la ñoo ngi koy jaale yaayam way juróom bu jigéen bàyyeekoo na fii ñoo ngi ko koy jaale baax a baax maam jaara di ba États-Unis di ko jaale ay rakkam métti mm. na trop métti mm. na trop waaye tamit noonu la àdduna tamit noonu la am na ñoo xam sama mm. classe gi ma ñàkk nañu yaay ñàkk nañu bàyyi mais tamit àdduna noonu la noonu la àdduna euh, noonu la yàlla moo ñu moo yàlla mi ñu sàkk ki la sàkk moo la fiy jëlee wax dëgg yàlla kon dañ leen di ñaanal mhm. képp ku ñàkk sa wayjur rek di la ñaanal nga mhm. yor xolu muñ mhm. te boo jullee di ñaanal sa wayjur mbokk yi ñun la ak yéen ak Leral TV Leral point maa ngi gërëm diaspora bi di gërëm sumay xarit laay bu def encore une fois jërëjëf laay bu def chaque jour du ma taay ci yow jërëjëf Pape Seck jërëjëf ma xarit yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo may bëggee bu baax a baax suma rakk Adama Sita jërëjëfati ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax Ibrahima Tarkinda. Ibrahima Tarkinda nekk foofu ci ci nga xamante ni Ibrahima kante di koo xam ne ku sonn ci jàmm gën di doomu jàmm gën man sa doléance bi Ibrahima Kanté laa koy wax <laughs> téléphone Ibrahima maa ngi lay wax ni la joxal ki nga xam ne mooy fàllu téléphone <laughs> yow Ibrahima Kanté nga xam doomu jàmm gën nga lépp lu jàmm gën soxla dañ ciy taxaw maa ngi lay wax ne fàllu lépp lu mu am jàmm gën a ko ko gënal kon taxawal kii mu am téléphone yow kante yow loolu yow laa ko dagaan te xam naa ko def mbokk di leen gërëm bu baax a baax Aline Badara ñoo ngi lay gërëm bu baax baax doomi doo doomu fukki penc ñaar nga ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax jiba ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax sama benn xarit Amet Amet doomu parcelle la Amet borom difoncé moo mooy def tudd dimanche di sama xarit di suma lépp ñuy woo waa difoncé yëpp jaagatu PS détaché yi nañ leen di woo jox leen rendez-vous suñu tudd boobu na ñépp ñëw mbokk yi di leen jox di daje beneen yoon ak Leral TV Leral point na jërë ngeen def ñun la ak yéen 93 point 1 ca Ziguinchor ak rajo leeral léppay rajo bi leen di gën a rajo leeral kumpa jeex na encore plus proche de l'info Enfin prendre le temps de lire et de s'informer véritablement. Détente, loisirs, l'actualité. ay xibaar yu wóor kay journaliste yu xarañ Aimez l'actualité avec les plus belles signatures du Sénégal. Ay reportage 8 mai. na rajo leeral rajo conducteur yi rajo taximaan yi rajo chauffeur yi 96 point 1 ci Dakar 100 point 4 Kaolack 87 point 8 Mbacké Touba 93 point 1 ca rajo bi leen di gën a jegele ak xibaar rajo buy leeral ak rajo leeral léppay leer ak rajo leeral kumpa jeex na rajo Leral 96.1 Dakar 100.4 Kaolack 87.8 Mbacké Touba 93.1 Ziguinchor rajo Leral encore plus proche de l'info. point 4 Kaolack 87.8 Mbacké Touba 93.1 Ziguinchor rajo Leral encore plus proche de l'info. rajo ba ngeen doon xaar day yegsi na rajo leeral rajo conducteur yi rajo taximaan yi rajo chauffeur yi 96 point 1 ci Dakar 100 point 4 Kaolack 87 point 8 rajo bi leen di gën a jegele ak xibaar rajo buy leeral ak rajo leeral léppay leer ak rajo leeral kumpa jeex na ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di nuyu waa senegal euh, di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu waa diaspora tey nag euh, dañu fi seet si euh, alu taxi yi euh, ñu seet fi Baye ñas tey ñu feggoo ceeg waxtaan bi ku ñuy wax Pape mbay ak sama doom Baye Badiane feggoo ceeg Alaaji Baara Gueye mu féete ci wàllum taxi mi ñu bëggoon a waxtaane tuuti rek ci mbirum transport ak mbirum wargaynde bu ñu nee wargaynde nag nit ñi dëgg-dëgg xamuñu lan mooy wargaynde moo tax tey tele euh, leeral TV euh, da nam ay tànkam ñëw ba fii ci pharmacie Padois euh, bëgg a xam lan mooy Allo Taxi loolu daal bëggoon nañ ko xam wargaynde dëgg-dëgg lan mooy aw turam ak lu ko andi ñu feggoo ceek Pape mbay Pape ñu ngi lay nuyu. salaamualeykum Mbaye Badiane ñu ngi lay siyaar di la fay nuyoo di la wàccee sa wàccuwaay yow ak ñi nga àndal yëpp ñëw fi ñu ngi leen di dalal jàmm. di leen sant di leen gërëm ci teewaay bi. ndax defe naa boo léegee ci mbir li ci yëngu. nit ñëw ni la nañ fësal li ngay def nañ ko feeñal. te muy lu am njariñ loolu amel nañ leen jukkal yoo tamit ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak équipe bi nga àndal yëpp. di gërëm waa Leral TV yëpp di nuyu suñu xarit ya fa nekk commencé ko ci Pape Maguette yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen wax ngeen dal ak jàmm. di leen sant di leen gërëm. jërëjëf kon danga may joxal sama doomu baay. Euh, damay joxal sama doom baay Badiane maa ngi lay nuyu Badiane di la ziyaare di la ñaanal jàmm Badiane. Ah, ñoo ngi leen di fay Mbaye Badiane di leen ziyaare di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. Ah, lii de moom contentement la rek parce que bërëb moom boo fi ñëwee pour bëgg xam yaakaar naa balaa nga fiy jóge dinañ la leeral lépp loo xamante ne nii moom ngay ut si. Mhm. si kàttanu yàlla. Mhm. Hmm. jërëjëf kon damay wëlbatiku ci Alaaji Baara Gaye moom nag tey moo fi nekkal taximaan yi eh, di taximaan. Euh, dañuy jox kàddu gi alaaji Baara Gueye alaaji Baara ñu ngi lay nuyu. Eh, waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu waa ahlu transport yëpp di nuyu waa Leral TV euh, équipe bi ñu indi fi ba am solo bi euh, di nuyu képp ku bokk transport di nuyu sama benn grand bu ñuy wax Mor mbay nekk ci boo ci boor yi Grand Médine ci marché poisson di nuyu ku ñuy wax Bas Daba ci yéer yi nga xam ne émission bu ñëw moom day da koy teewlu. du képp koo xam ne rek yaa ngi transport di nuyu maa ngi koo taxaw taximaan bi nga xam ne fa laa jógee nii Mbaye Badiane ba si kanam. Eh, jërëjëf dañuy wàññeeku ci Pape mbay Pape Mbaye euh, tey dañoo tey télé bi da seet si da leen a seet si yéen waa alu taxi Pape mbay dañoo bëggoon a xam alu taxi euh, lan mooy alu taxi ak alu ak alu taxi lan moo ko andi. waaw xam naa tontu ko dana yomb waaye dina jafe ci ku ko alors taxi damay transport man d'une manière général dafa bokk ci li nga xam ni mooy ndey koom ci réew c'est un pôle de développement stratégique de transport réew moo dégg ni transport ba ma ngay dox wala réew mu développé la dafay wane ni transport bi mi ngi dox ndax dafay wane ni xaalis mi ngi circuler mais dafay wane nit ñi ngi dem ak a ñëw dafay permettre nit ñi dafay yombal nit ñi ñuy déplacé wu di dem ci pour mën a euh, wut koom wala fexe nu ñu amee koom spécifiquement nag boo jëlee euh, li ngay tuddee li ngay wax allo taxi dañ ko def mu nekk benn service public état la waroon état moo war a defar ay tali yu baax wàcce ay oto yu baax ñu ñi di ko jëfandikoo mu am des jeunes ay ndaw yoo xam ne dañu toll ci liggéey permis de conduire ku nekk xam na ni c'est un diplôme technique du ku nekk sax lañ koy délivrer délivrer boo tëxee maa nga yor laago bu fés duñ la jox permis de conduire waa ay xale yu am ay diplôme technique seen xam-xam màcc ci lu jëm ci wàllu automobile ñu bëgg a indi seen seen pierre si édifice bi comme ni ñu koy waxee participer si seen développement réew tax ñu takku di yëngu ci transport beru nag ñoom beru di jëfandikoo lu ñuy wax allo taxi wala allo Dakar je crois en ci tënk ci résumé loolu daal lañ buggoon a leeral en premier lieu génnul transport ñu ngi si biir transport su fekkee am na yeneen laaj si kanam tuuti ñu gën la mën a leeral. waaw jërëjëf xam naa damay jox sama doom baay kàddu gi laaj ko euh, sama doom baay dama lay laaj. Euh, moom leeralul carrément lan mooy alu taxi da koo junj rek waaye alu taxi dafa mel ni ki ne kalandoo la kalandoo gars yi am fuñ ko dut baaraam ne kalandoo clandestin la loolu laa bëggoon sama doom bàyyi nga leeralal ma ko. Ah, waaw loolu am na solo euh, parce que allo taxi mel na ni comme kalandoo la rek parce que amuñu licence te oto bu amul licence. booy def transport kalandoo nga loolu tamit il faut nit ñi bàyyi ko xel euh, li ko tax a jóg nag moom non seulement que mu ngi servi population bi mu ngi servi réew mi aussi tamit mhm. euh, parce que yaakaar naa ne bés bu fekkonte ne transport mat na ni mu war a mate kon amaana ba kalandoo yi duñ def interurbain bi nga xam ne nii moom la ñuy def mais xëñ na nag transport moo matul moo tax tey ndaw yooyu noonu dooleel tey transport parce que lépp nag dañ ko jël boole ko si biir transport ba tax tey ñuy def allo Dakar boobu noonu. Mhm. waa di def interurbain pour satisfaire population Sénégal bi nga xam ne nii moom lañ nekk. même bu fekkee état bi tegu ko sax mais ñun ñi nga xamante ne ñooy ay ndaw ñu jàppale suñu réew pour satisfaire tamit suñu askan. Mhm. voilà li état boo doon liggéey ñun ñu mujj ko def. Mhm. waaw am na solo kon damay tourner ci Alaaji Baara moom nga xam ne moo fi nekkal taximaan yi. Alaaji a dégg nga li gaa wax ci euh, alo taxi euh, Pape mbay moom dafa njoos wax ji rek waxul kaari kaari waaye ki nga xam ne sama doom baay la moom leeral na ay kàddoom Alaaji Baara yow nga nekk taksi taximaan euh, alo taksi alo war gaynde bi ban en ban ban ban problème la la la la la am seen diggante ak transport bi ngay def waaw Mbaye Badiane maa ngi di continuer di nuyu sama gars yi di kontaan ci seen waxtaan bi euh, état dafa définir ci transport juróom-ñetti oto huit oto la définir ci transport. Mm-hmm. ñeenti urbain la ñeenti inter urbain mun naa ko tas yëpp partout. aywa dafa def mini bus dafa def bus. Mm-hmm. def mini bus. Mm-hmm. def mini car def sept places mooy ñeenti nga xam ne inter urbain la. nga ñëw urbain. mu indi bus indi mini bus car rapide ci la bokk. Ndiaga Ndiaye ci la bokk yi am licence urbain. mu indi euh, taxi. indi bi ci mooy clando vert blanc. moo quatrième mooy quatrième bi nga xam ne nii moo nekk ci euh, urbain. kon huit transport yooyu la état définir ñoo am autorisation pour def transport. keneen ku dugg ci transport ku dul kooku da nga def irrégulier. maanaam sa transport te ci yoon. ku ci ne alkaati bu ñëwee am na droit jàpp la gendarme am na droit jàpp yoon am na droit alamaan la lu ko neex. Mm-hmm. parce que état définir la pour nga bokk ci may euh, ma ci occasion tuuti ci waxtaan bi mhm. di gën a conseiller sama partenaires yi nga xam ne bëgguma euh, ñu ñu ñu génn ci secteur bi dama bëgg ñu dugg ci secteur bi mais daa meñaar manière boo xam ne dañu war a duggee transport parce que ñoom am nañ am nañ acquis pour waxtaan ak état di waxtaan ak Macky Sall di waxtaan a euh, ministère am nañ loolu ñoom parce que gis naa ko ñu def ko yoon yoon di waxtaan ñu bàyyi leen te état bi indi ay oto yoo xam ne ni ay minicar la yoo xam ne ni 2 millions lañ koy lañ koy joxe. pour nga avance jël ko ñoom nag gis na or yi ñu jënd ay 2 millions 500 3 millions lañ koy jëndee kon tey ñoom war a mën a engagé wu dugg ci système boobu pour mën a am oto boobu mën a def transport en commun normal. Mbaye mhm. Badiane. waaw jërëjëf ah, waa mbay Mbaye. non Pape Mbaye dañ koy benn bennal da ngay déglu ma laaj la question nga tontu voilà Pape mbay kon dégg nga Alaaji Baara li mu wax mais Pape mbay euh, yéen ndax alu taxi bii ngeen di nekk muy war gaynde ndax am ngeen ci ay jafe-jafe wala amu leen ko ci seen diggante ak état seen diggante ak takk der yi nga xam ne euh, ñoom ngeen nekkal ci tali bi. waaw ok déjà damay bëgg a résumer un peu li Issa Badiane wax ak li Baara wax yëpp parce que euh, baatu clando déjà amul si transport taxi banlieue moo am ñu ngi ko fi indi ci jamono yu Jean Collin nekkee ministre de l'intérieur muy taxi yi nga xam ni bu bus bi masaana dem. wala taxi urbain bi suma sa saan a dem fa muy yem fa la taxi baa ngi di jël pour jàllale boo koy fekk boori Thiaroye ak boori Guédiawaye maintenant ñun dafa am benn document administratif bu ñu amul muy licence état moo koy délivré état moo ñu ko war a jox. xoolal état moo ñu koy jox. xoolal xoolal fee moo ñu ko bañ a jox mais lépp loo gis dafa laaj organisation. état dañu organiser wu dafa am lu xew lu tax ñu téye licence yi yaakaar naa nekkul loo xam ni état yanu na ko tey pour xeex ci ak nit pour xeex ci ak ñun particulièrement ñun tamit wax dëgg yàlla li ñuy liggéey ñu ngi ci gis suñu bopp à sa juste valeur métti na comme liggéey yëpp comme métier yëpp mais dañ cee nekk di daan suñu doole def suñu kéemtalaay kattan pour di mën a subvenir à nos te nekkul loo xam dañoo nekk kon ni ko ñenn ñi di waxee wala nañ ko jàppee di li l'illégalité sëñ Bara mi ñuy orienté léegi di wax ñoom ñu ngi gisee ak Macky Sall waaw ñoom loolu moo leen wal ñoom ñun seen ñun suñu doole lañ ñoom mais ñoom ñun seen doole leen ñoom parce que ñun ñëpp benn permis bi permis bi dawal oto bi mooy dawal oto bi mu yor moom benn benn permis bi la transport kenn mënu koo xar ñaar chauffeur bi chauffeur bii xëyee fii dafa am benn jàngoro le VIH jamono bi mu xëyee ki mu gënoon a laal mooy chauffeur dafa mën a xëyee tey ndakaaru faraani Kaolack dafa am benn mobilité bu am mais chauffeur mooy dooley morom ja loolu rek laa bëgg a wax bon vraiment nekkul loo xam ne nii comme ni ñu ko bëgg a beddee loolu bu ko di nangu baara mhm. gis naa gis yi léeg ni pousser à ces question la oto bi suñ waxee dafa dafay def transport irrégulier mënoo ko bañ parce que yaa ngi wax ni amoo amul licence dama koy nangu ba pare wal na ni oto bi ci ko dafa am këyit oto bi ami këyit état question yi mu war a wu sax mooy lu tax nit ñi bëgg ko parce que nit ñee ko bëgg parce que voyage ñaar la confort la ak sécurité. jërëjëf te oto bi am na ko. joxal ma sama doomu euh, Euh, euh, doom baay euh, ma am lu ma la laaj foofu damay damay sof ay kàddoom ci samay wax doom baay dañu ne kalandoo kalandoo dañu ne vert blanc taksi dañu ne taxi bi day am jaune noir dañu ne day am transport en commun livré taxi dañu ne day am assurance vert ndax doom bàyyi dama lay laaj seen euh, euh, seen assurance ban assurance la ak ñaata lay jar parce que taxi assurance am benn weer vingt et la cinq cent euh, taxi vingt et un mille cinq cent la nga ñëw ci particulier kon particulier lañ koy mën a tudde mais li tax ñu andi émission bi nekkul ne dañ fi ñëw pour di corriger pour di yàq parce que lu toll ni télé du déplacé wu ñëw fii di wax loo xam ne dafay yàq ñun lu ñuy defar moo ñu tax a teg toog fii werante wuñu dañoo bëgg a xam doom baay dañoo bëgg a xam matière kalandoo boobu dañ ne vert blanc taxi bi son noir bi son noir taxi bi transport moo koy dawal particulier bi poids mën naka dawal loolu lañ bëgg na xam nga nga ràññeet lañu ko euh, waaw loolu dinaa sawar pour di la si tontu euh, malgré que ay particulier lañu yor amuñu couleur vert blanc parce que vert blanc ba muy am amaana ba ñii fi nekk si secteur bi actuellement nii sax fekkuñu ko fi baa ñu ko fekkee tamit lu néew la euh, loolu moo tax jamono bi mu ñoom loolu mënuñ see xam dara euh, mais quant nii nii ay particulier lañ yor yoruñu auto transport euh, beneen bi si topp mooy côté assurance bi ngay wax aussi tamit mm-hmm. assurance normal la ñuy dagg mooy assurance particulier la ñuy dagg mm-hmm. mais bu fekkonte ne tey état dañ ñu jox benn feu ñu ne ñu. Hmm. yéen assurance bii ngeen di dagg. bu boobaa ñun dinañ mën a dagg assurance bi nga xam ne nii aussi tamit moom mooy dawal suñu oto yi mais quantant loolu amuñu ko. te hmm. boobu ba léegi ñun ñu ngi si topp di ci dox di ci wax. non seulement que ñun am nañ association boo xam ne ni alo dakaar la. Hmm. association nationale. kooku ñu ngi koy développé. te aussi tamit ñu ngi siy dox di ci wax xëñ na nag tollooguñu si phase boobu ba ñu mën ñoo jox assurance bi nga xamante ne nii tey mooy assurance transport en commun. Euh, quant à permis yu aussi tamit gone yi fi nekk yëpp ay transport en commun lañ yor. yoruñu sax euh, poids lourd. transport en commun la ñuy dawale seeni oto. képp ku taxaw fii di def rallye bi comme ni ñuy def ni allo taxi bi allo Dakar bi ñuy def transport en commun la ñuy dawale. benn si man mii toog nii dama koy dawal. transport en commun laay dawale. Mhm. bari naa ci ay morom xëñ na nag si jamono biñ toll nii man maa dematul. moo tax ñu toog gérer garage bi comme ñun xam nañ circuit bi xam nañ yoon wi di kaw wan gone yi tamit di leen jàngal civisme ak yar teey ak lépp loo xamante ni lu ñuy def ci kaw tali bi mu nekk lu extraordinaire ba client bi nga xam ne nii moom bu ñëwee bu subaa dina ñëwaat parce que tey boo xoolee ñun suñu oto yi non seulement maanaam. Sénégalais bi na la jege na la yi ñoom ñoo bëgg ñun suñu oto yi ndax dañu yemul parce que tey jii Dakar Mbour 3000 francs la. boo demee boo marché dakaar mbuur yaakaar na ay 2000 nangam la même pas 3000. waa léegi nag client bi moom day xool rapidité bi sécurité bi bi ci am tey jii moo tax muy ñëw fii suñu oto yi ba tax na mu ciy dugg pour voyage yi loolu moo tax tey ñuy def allo Dakar bi allo taxi bi moo koy ñoo moo waral ñu di ko def mhm. waaw jërëjëf kon damay wàññeekuwaat ci grand baara alaaji baara dégg sama ñaari gars yi wax nii mhm. Euh, ci li nga xam ne mooy norme yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom tege nañ ci ma bëgg laa laaj ci norme yi nga xam ne yéen tege ngeen ci muy norme taxi dëgg-dëgg ñu xam lan mooy taxi ndax da ay matières yu bari nga lim ci ñeenti matière alaaji baara ñeenti matières yooyu ban moo ci gën a am doole euh, d'abord damay jubanti euh, grand pape yàgg nañ transport lool ñoo bokkoon padowa gi xaj na may dem Pikine nag yëpp muy muy taxaw fi ma ko fi fekk euh, dama koy recasser tuuti euh, gis nga vert blanc kalandoo la woon R4 la woon yow xam nga ci dara yow R4 la woon vert blanc la woon su jegee Pikine yëpp client ba àggee Dakar dafay wàcce dawal ñu bisiwaat taxawaat du yebaat client fen loolu moo doon kalandoo ci Sénégal dafa bar rek dagg nag kalandoo lépp ngeen doon kalandoo bi ci topp mooy euh, ñun actuellement ñun ci loi la ñuy dox dañoo dem ñu indi ñu ministère transport mu ne ñu ba bëggee def transport ci taxi taxi bii moo koy def nii la war a mel kayit yi la war a am assurance bii moo war a couvrir ñi sa ginnaaw mu ne yow mi koy dawal da ngay dem am bi permis de kon transport en commun da ngay dem wati livre de conducteur nga xam yan nit ñi fan lañ nekk maanaam nga xam nga xam hôpital yi xam clinique yi xam rii xam ville bi ba bu étranger ñëwee yow yaay nekk ambassadeur boo xam ne yaa koy yóbbu loolu mooy taxi loolu lañ définir ci taxi boo amul loolu waroo nekk taximan doo taximan ak képp ku koy dawal ne ci transport dugg ci irrégulier nga dugg mhm. waaye duggoo ci transport waaw kon alaaji baaram dog doguma la kon ñoom bu ñu bëggoon a doon taxi ñoom naka la ñuy def ba doon ko voilà actuellement man jox naa leen benn conseil boo xam ne su doon man ak sama rakk keneen loolu lay wax parce que mënoo jënd oto boo xam ne deux millions cinq cent la jar état ne indi naa benn programme ay minicar yoo xam ne dama koy ko soxla yéen ko moom kaay leen jox ma deux millions ma bees tax ba pare protéger la ci tous les côtés nga mën a dem fu la neexee yëpp kenn du la kenn ngeen am matu ànd ngeen nekk benn dajaloo ba gis président gis ministère mais may xala nee na ko oto yi ñu yor day wax day waaye mën nañ ko jaay 1 million 500 état nga complété ñu ñu amatu yu bees yi normes yi transport laaj mhm. ñoom mën nañ loolu mhm. nañ ko def pour di transport mais buñu mënuñu mënuñu illégal ba pare ñu bu ko légal mënu ne parce que oto bi ñi nga xam ne ñooy joxe papier transport d'accorduñ ko mhm. benn oto bi xat na warul def transport parce que cette place dafa am équilibre boo toogee sa tànk mën a génn oto boo toogee ci gannaaw nii nga def man baara boog bu toogee nii nga man baara su accident amee sama tànk assurance bi nga xamante ni bi moo mooy mooy couvrir euh, passager yi matul assurance parce que 6 000 francs mën nga ci assurance man dama doon dagg assurance ay particulier boo indee 20 ma dagale 6 mois ndax yow am nga mbokk muy dawal alu taxi aw ma ko mais su ma ko moom mu jaay ko ma dugal ko ci minicar yi mu liggéey normal di relais mhm. te kenn du koy MPC mhm. loolu laay xele Pape Mbaye ak gars yi àndat ñu def loolu mhm. Pape Mbaye euh, bu ñu tontonte nañu wax directement ci thème bi ndax loolu itam andi wuñu fi ah pambay ndax seen mbootaay gii euh, ñi fi nekk ñëpp dégg naa nga ne ñëpp transport en commun la ñu yor ñi ci ëpp bokk ndax ñooñu seen xel wàññeeku na pour oto bi ñu yor doon transport ndax defe naa alu taxi metti na man sama yor naa rakk bu ci dawal war ngeen ko xam Babacar Fall sama rakk la war ngeen ko xam sama goro la sama rakk la lépp la Babacar Fall cam dëkk Mbuur ah? ah metti na njàpp yi metti na samp yi metti na ñoom en tant que nga nekk seen grand tey lan nga leen di xelal waaw pour couper court baat bi nga wax ñun samp ñun xamuñu ko ça c'est un la deuxième chose njàpp mi dañuy jàpp comme oto yëpp di ñu teg ci yoon dañuy jàpp verbaliser ñu ñu dem fay mais li ñuy jàppee dañ koy teg ci yoon kenn ñu jàpp ay njàpp fala fala yooyu parce que dafa am benn confusion bu am déjà waruñu tontonte mais war nañu wax exactement li am li am mooy li ñu xam ci assurance moo ci carte grise li ñuy sukkandiku pour assurer oto vrai ou faux oto bi dafay def transport dañ koy daggal assurance transport oto bi particulier la dañ koy daggal assurance particulier naam lu ñu wax contraire bi de mais li ñu xam mooy li wér te wóor mooy da nga war a sukkandiku ci nombre de personnes ci nombre de passagers bi oto bi di jël pour nga daggal ko assurance en cas de bu assurance ñëwee wala bu constat ñëwee ci loolu lay sukkandiku xool nangami place moo nekk ci carte grise moo wane ko maintenant allo Dakar taxi en ligne la damay toog suma kër yëkkati suma téléphone woo suma chauffeur ni ko je vais aller à Thiès ma woo ko Issa Abadial woo ko nga woo ko mu bale ñu yóbbu mu boole ñu yóbbu loolu mooy allo Dakar en quoi ñu ko araamal eggul ci araam non lu dëgg ñun ñun nag ñun nag ñun waa télé waxuñu waxi waxi la non non Baara moo ko wax Baara moo ko wax je l'accuse je le désigne doit accusateur moom moo ko wax dañ koy tontu yaa ngi naan ma bu leen werante il faut bu nit waxee loolu dina dindi la ñu dindi ko gentiment poliment ñu jàll si leneen mënul ñàkk suñu parce que kii bi ma ko xamee ëpp na vingt ans kon am na orma bu dox suñu diggante mais dama la sànq moom sama doole la moom ku ko laal ku laal taxi jaune noir xanaa ko moo loolu moo ñu fragiliser loolu moo ñu néewal doole baara su amee lu ko naqari oto yëpp war taxaw oto yi Sénégal yëpp bu taxi jaune noir amee lu ko naqari kii muy wax allo Dakar daa war a taxaw Dakar dem dikk taxaw car rapide taxaw kalandoo taxaw saret taxaw keneen ak keneen taxaw bala balaa état di yëkkati benn bant daf ñuy woo wax ak ñun parce que ce sera une force politique naturelle incontournable kenn du mën a teg benn tànk te waxoog ñun ñun noonu la ñu war a organiser woo. waaw doole jooju lu leen ko may lu ngeen ngeen bëgg am ko nga wax. non kon déggoo ma waxuma lool de. loolu yàlla defalu ko kenn personne n'a le monopole de l'avoir ou savoir amul kenn ku yàlla bind ku peeg lépp mbaa nga xam lépp loolu amul suñu soxla laa wax mi ngi ci liggéey bi ñuy liggéey. liggéey bi état moo ñu jàppale pour ñu mun ko liggéey. mais état il a l'obligation état ci nan la dafa am obligation pour jàppale ñu. ci nan la leen jàppale. ci nan la ñu jàpp yan conditions ci nan la ñu jàppale. waaw man lan ñu bund xatal ne ñu du ngeen fi dawee ku fi daw ñu rey la te suba duñ fi mën a daw mais état dafa am obligation jàppale ay doomi réewam état à la responsabilité de donner à tout citoyen un travail décent. ak la ak yeleef bu tegu ci ndoddu état pour doomam bu nekk mu jox la liggéey bu sell bu wér te wóor loolu état la war mu mënu ko dajale. man ma dem dugg ci àll bi bàyyi ba am ñaari million jëndee ko oto di ko dawal état ni ma doo ko fi dawale non état def loolu yéen yéen a koy wax mais état moom am na settal ngal gu toll ni ñun mu fexe kenn ku nekk nga tegu ci charte yi nga war a tegu yu dëppoo ak yoon waxuma ñu wéy di nekk dans l'illégalité de waxuma loolu parce que nit nag da a fexe ba liggéey liggéey nga teg ko yoon loolu moom mooy dëgg ñu nangu ko ak ñu bañ ko nangu mais man jàpp naa ni ñu ngi si yoon parce que suñuy xale ñu ne duñ leen bàyyi dañ leen di sensibiliser di leen wax ñu dox ndànk encore une fois dañ ciy profité gërëmaat leen mu seen rôle aussi la presse a un rôle prépondérant par rapport au transport ak la ak yelleef bu tegu ci presse Sénégal bu tegu ci ndodd presse Sénégal ngeen yëngatu dugg ci biir transport gëstu ci sensibiliser usagers yi ñuy jëfandikoo tali waaye ak chauffeur si ñuy dox ndànk ndax dox ndànk moom dal ndànk rek moo ciy topp waaw xanaa ma bàyyi Issa Badiane wala bu fekkee am nga beneen waaw Issa euh, ñu delloo la kàddu gi Issa dégg nga li suñu tonton bi wax mu nekk lu am solo Issa ndax yéen bëggan nañoo xam euh, yéen ci seen ab lim tey boo ma ko doon xaymaal ci alu taxi ñaata lay war a toll ndax itam dañuy soxla ay lim léeg-léeg ndax bëgg nañoo xam euh, alu taxi ni ko sama grand waxee njariñ gi nga xam ne tànnal na ko ndax euh, euh, taximan bi nga xam ne da doon am client ab aéroport am client ab mbuur am client kees kon grand bi nee na alu taxi bi dañuy toog woo ko mu ñëw waaye de taxi ban yi ñoom ñi ngi jooy grand bëgg nañoo xam euh, euh, tey boo ma doon xaymaal ci seen membre yi nga xam ne moo nekk fii ñaata lañu war a toll euh, waaw loolu ba tey dinañ ci sawaraat ndax tey jii mën naa ne suñu membre yi lim bi lim bi nga xamante nii moom moo fi nekk boo nee mille sax danga nga à rek boo nee mille danga nga à parce que tey jii fenn fu ne Sénégal partout am na tey Allo Dakar Sénégal partout am na alo Dakar foo dem actuellement nii am na fa kon lim boobu mënuñu ko xayma lim bi mënuñu ko xayma carrément carrément euh, ba pare taximaan bi ak Allo Dakar bi mënuñu bokk ñoom ñaar duñu concurrence sax mhm. mënuñu bokk parce que non seulement que paas yi bokkul oto yi bokkul léegi client bi nga xam ne nii moom moo daan jël taxi ba tey mu ngi jël taxi client car rapide ba tey car rapide lay jël client bi nga xam ne nii moom moo bëgg Allo dakaar moom day dugg Allo Dakar non seulement que seen norme bokkul prix yi bokkul tarif yi bokkul ba pare destination yi bokkul aussi tamit loolu tamit ñu bàyyi ko xel kon ñun li nga xam ne nii si la ñuy yëngu ñun population bi moom ñoom ñoo ñu soxla population Sénégal ñoom ñoo ñu soxla ba tax mhm. tey ñun ñu am fit am doole pour di ko def tey pour mën leen satisfaire ba fépp foo xam ne nii passager bëgg na fa dem rek ñun ñu obligé yóbbu ko foofu mhm. ñun ñu taxaw taxawaayu tey yóbbu ko fi nga xamante ne nii foofu la soxla satisfaire ka ba bu ëllëgee tey ñu taxaw ñun mën a am doole te doole jooju moom lañ bëgg am tey si réew mi ñu nekk nii waaw bu fekkente ne tey fi ñu teg suñu tànk dakkuñu ko rek bu soobee yàlla dinañ am doole état dinañ ñu dégg te buñ ñu déggee it bëgg nañ tam ñu teg ñu si norme yu leer damay revenir at sans léegi si kii li mu wax malgré que tey état andi na ay bus ay minibus sax laay wax mooy Toyota IAS yi nga xam ne nii moom lañ doon joxe waa léegi tey Toyota IAS boo ko taxawaloon fii nga taxawal fii benn oto six places Toyota IAS mën na fi def quatre de temps client bi moom day préféré jël oto bu ndaw loolu mooy problème bi kon problème bi yëpp foofu la nekkee man dama jàppe ne état moom buy defal réewam wala buy defal population am xool li nga xam ne nii moom la population bi gën bëgg mu defal leen loolu tey état bu fekkonte ne tey dafa andi ay oto yu ndaw ay oto yu ndaw yu moderniser yu yu tey ñun kenn duñu si jiitu kenn duñu si jiitu dañuy dem topp li nga xam ne nii moom la état wax ba bu ëllëgee tey ñu taxaw nekk suñuy droit am ay am am am am lu leer loo xam ne dinañ ko mën a teg ba bu boobaa ku wax ñun ñu yëkki suñu micro wax mais fi ñu toll ñoom dañu tënk dañu tënk tënk goo xam ne nii ñun mënuñoo sëxët mënuñoo wax. mais li ñu man nag mooy tey li ñuy satisfaire tey population bi. Mhm. loolu rek lañ man jërëjëf jërëjëf El Baara. dégg nga sama gars yi li ñu wax. El mhm. Hadj Baara nga fàttali mbay na ko kii <laughs> Babacar sama waay la xeexu boobu quoi mais dafa am conseil yu may joxe rek. te bu doon sax sama secteur la bokk dama leen di conseillé. loolu secteur taxe la di conseillé. c'est que état bi def na yi mu def ñun nag ñoo gisut vision bi amuñu vision boobu même kalandoo am na verre mala yu ndaw yu ñuy indil de cette personne. pour clando yi ñoom ñëpp jëm ci rakaase wu noonu la indi lay yéen seen oto yi la indi ay minicar yoo xam ne rakaase wu minicar bees tul taxawoon fii jëm Thiès day fees man sa lay yéeg kenn ci lay bu ma kar bu ma kar su ko defee yéen am ngeen possibilité waxtaan état wax naa la ko maintes fois dem ngeen ci état waxtaan ak moom am ngeen ay njiit yoo xam ne nii confort la di dem ci état di waxtaan moom am ngeen njiit yoo xam ne ci maaraay di waxtaan ak ñoom ne leen état bi te bëgg leen a dundal sa milikaar yee ngi jox ñun kat am nañ possibilité jënd oto boo xam ne deux millions cinq cent lay jar te deux millions koo koy joxe tey bi ñu ko doon jaay tey un million cinq cent lañ ko mën a jaayee état nooy def ba ñun ñu am ci oto yooyu toog di ko xool dañoo bëgg génn illégal pap loolu foofu laa la yóbbu yaa sa partenaire bi ngeen idée ngeen aidé booy ndaw yi seen ginnaaw parce que ñii xam suñu teg seen tànk de te yéen ancien ngeen yàgg ngeen ak man ci transport te benn bis ñëw transport bi dafay changé ci nii ak kii fi ne bu fi jógee parce que am na yërmande ñeneen am na yërmande mais bu fi jógee ñeneen ñi ñëw dañ koy ci nu leen ni jaar balay loolee ñëw nag négocier leen waxtaan ak moom seet na ngeen di def ba dugal leen ci bi ngeen génn illégal parce que oto yi ngeen yor programme wuñ pour transport pour te dire non loolu particulier la oto yi ngeen yor particulier lañ ko programmé transport nee naa la huit huit huit oto la état programme transport huit oto juróom-ñetti ah taxi ak vert blanc bi nga xam ne amatul mooy cadre ne fii interurbain cadre la ci programme muy bis mini bis ak euh, nu mu tuddati sept places yooyu la programme yooyu la programme transport. kon boo bëggee Pape Mbaye transport boo xam ne état programme wu ko man du ko mën a d' accord nag waaye mën naa am nag idée bi moo lay jox boo xam ne nii boo tegee sa tànk xëj na da nga mën a jàll Pape Mbaye. mais la dafa am lu ñuy la restructuration du transport. état di Sénégal moo am projet pour tëggaat transport yëpp. bëgg a changer car rapide mooy tata yi nga gis tata boo gis muy daw car rapide la wala Ndiaga Ndiaye. waaw waaw dem Yoff ci garage wu aéroport. góor gu ñuy wax Ousmane Wade jiite ko dans les années quatre vingt dix deux ñu jël ko pour mu nekk président wu GIE pour renouvellement taxi ba képp ko am taxi ñu soppi ko looloo tax oto yi bari fi kon yow loolu daf lay rëcc je te donne une information de mu am leneen lu ñuy woowee la privatisation des lieux de transport dañuy jaay état day jaay barab yi ñuy defee transport expérience bi ñu ngi koy dund à Petersen boo demee fi fukki coxeur doon taxaw ñaar a taxaw ñu tuddee leen ay. ralumaan ah. ralumaan wala. non du tout ay régulateur régulateur merci. ñuy bind arrivé ak départ oto yi. départ c'est la privatisation des lieux de transport moo indi loolu. taxoon na mu am xëccoo gu métti ci diggante ñaari mairie mairie Grand Dakar euh, mairie Dakar ak le maire de Dakar Plateau ñuy xëccoo sax Petersen parce que secteur bi nga nekk c' est le lieu le plus rentable pour les caisses des collectivités locales transport mooy kii gën a dugal xaalis ci senegal ci keesu maire yi. Mhm. loolu yéen waa transport da ngeen koo war a xam. xam nañ ko ndax pétrole bi ñu taaj fii station d' essence bi. kenn mënul wax transport génn ci station d'essence xaalis bu bëri la ñuy fay maire yi oto yi dañuy fay ay droit de stationnement ñu koy wax juuti bari na lu ñuy fay pour couper court pour yem foofu taxi oto yi xëyuñu rek wàcc fi nii état moo sabab di ko indi pour ñu renouveler taxi dañoo dem ba ca biir mu am lu chamboulé projet bi ba taxi jaune noir ba nga daan gis dix ans ci ginnaaw moo continué di fi daw looloo tax das yaa bari fi dañ ko indi woon uniquement pour renouveler ce parc automobile mais muy les taxis urbains mhm. loolu ma leeralal la ko mhm. mais état nag lu ñuy du ku ñuy défier wala yooyu mais alors Dakar yàgg may ay benn état bu fi ñëwee non mais ñun nga baal ma si termi comme li ko xale yi di waxee ñu ragal loolu duñ ko ragal parce que parce que état bu fi ñëw état bu fi ñëw sacerdoce lay doon ak lay doon ak yelleef pour mu jàppale doomi réewum pour mu collaborer ak ñun parce que ñun li ñu yëkkati rek mooy liggéey defuñu leneen kaas si am ci dëkk bi li ñu def ci BRT bi le bus rapide transit nga xam ni en 2002 ñun la ñu ngi toog fii ci Patte d'Oie di ji ci waxtaan ak des étrangers nan la ñuy def ba Dakar am BRT mooy euh, jëlale Guédiawaye pap pap pap ñun ci kalandoo bi la ñu nekk tey ñu ngi fii demuñu ci bertee tey dañoo nekk ah, ci wàllu alors non non pap bul jaxase bul jaxase donc bul jaxase bul jaxase non bul jaxase bul jaxase bul jaxase côté boobu moom demu ci loolu wàllu politique la demuñu ci côté boobu kon pap kon kon pap yéen yéen a ngi fay lépp lu ngeen warloo ak état ci oto yi yéen a ngi fay droit de stationnement parce que dama dem ci benn milieu boo xam ne euh, damay xool yenn ci ay clando seen visite technique sax doxut ñuy daw noonu seen assurance jeex ñuy daw noonu man dama gëstu loolu ba am ci lu ma leer parce que tooguma fii ci télé di wax rek di wax lu ma neex dama dem ci oto yoo xam ne fa ñuy taxaw ñii seen visite technique jeex na bu yàgg ñii seeni i toj na ah ñii am na ci ñooñ sax bu tawee dañuy gaare eh, seen seen glace du dox ah, ah? Euh, loolu baa amul ci seen a njaboot déedéet mais li ngay wax je crois c'est plus fondamental gën na sax xóot loolu weñ ngaa nga bañee ca mbànja xaan ma xale bi am permis de conduire te mënut a dawal ki am visite technique su waru ko woon am jiiñ ko ingénieur bi délivrer permis de conduire état moo ko mettre dans toutes les conditions yu nga xam ne waa ji bu ci nekkee day nekk à l'abri du besoin du am soxla ci fukk wala ñaar fukk junni bi ko xale bi di jox pour mu jox ko permis mais du responsabilité moom rek xale bi am na responsabilité autant que l'ingénieur qui délivre le permis de conduire xale bi moo dem di wuti permis ingénieur bi fekk ko fa mu toog moom ni yaayam baara mi dem di ko wutale permis te mënut ta dawal ñoo yem benn responsabilité di wuti ka euh, visite technique fay xaalis ñu defal ko visite waa ji deful yoon. ki ko amagul nag. ki amagul visite. ki amul visite cay daw. tey daw waaw non dafa am ñu teg ci tali bi. dafa am takk der yu ne ci tali bi yow ngay daw ay question ki nga xam ne amul visite technique. tey daw ci tali bi daw ci tali bi moom am na fu mu ko teg ba tax muy daw dafa am ñu bi. nañ ko jàpp verbaliser ko mu dem fay point barre amul leneen. nañ ko jàpp immobiliser oto bi taxawal oto bi ba mu dem fay ba ñëw ñu jox ko oto mu dem loolu la yoon wax. Mhm. mais damay ñëwaat am fu ma ñëwaat euh, ci pap pap balaa may jox sama doom bàyyi kàddu gi pap euh, man nag euh, benn audi benn téléspectateur ma yóbbante woon ne ma comme yaa ngi seeti sama mbokk alu taxi man de su may dem moom rek laay jël waaye dama lay yóbbante mu ne man leen rek moo ma metti ci ñoom. bu événement amee ni ñuy yokkee paas bu fekkee ne mbuur ñu ngi doon yebe 3000 6000 la lañuy yebe bu fekkee màggal ñëw na 15000 la ñuy yebe wala 10 000 francs auditeur bi nga xam ne mooy déglu tele bi moo ma yóbbante ci yéen nee na loolu yéen fan ngeen ko teg ba ci tëbaski gii paase nee na daj na lu ne ci àllu taxi ba pare sax amut faf lu ko ca neex ndax na mu tooge sax toogaay ba jékkut dèjà yow ki la kooku ñu ngi koy jéggulu di ko masawu coono yi mu daj ku ko def defoo yoon kenn amul droit yokku paas màggal tabaski gàmmu korité tamxarit kenn amul droit yokku paas dinaa leen may nag benn marge de manœuvre ñu yokk ci téeméer. ah ngay waxee de. dañuy dañuy jëlee fii oto jëm Mbuur yóbbu fa six personne ku ne fay leen trois mille ñu fay ci péage bi du ma tudd lim bi ñu jënd gasoil du ko tudd ñu jënd gasoil jënd leen leen fay leen leen mais bu ñuy ñëw amuñu chance pour yàpp parce que dañoo nekk ci événement nit ñi ñëwuñu dañuy dem danaa la may marge dafa am lu raisonnable boo nee bay yokk yokkal téeméer sax man am na loo xam ne du ma ko cautionné dafa ñaaw dafa métti ci usager yi te ñu ne client yi ñoo far le client n'est pas le roi ñoo ko wax ñoo ko weddi le la buy ñëw ci yow di joxe xaalisam nga war ko jox un service adéquat jox ko lu nooy lu am sécurité lu dalum xelam wax ko wax ju neex nax ko yóbbu ko ñun ñi fi nekk loolu lañ leen di digal de ku def leneen yow la. Mhm. kon euh, joxal ma euh, sama doom baay doom baay. dégg nga sama sama grand li mu wax moom du daanu quoi grand bi du daanu ndaanaan la moom du daanu da leen a jàppale ba téye seen i tànk ak ndigali moom moom du daanu mais grand client bi li mu wax noonu am na de. da ngeen di yokk pas cent pour cent. c'est vrai que am cent pour cent. ca nee na ci am na ci ñooñ sax bu ñu la nee clim la bu ñu dogee péage bi rek fay nañ kilim bi. waaw mu nekk loo xam ne itam àq la parce que àq it dafa sew. parce que nit ku nekk la ngay liggéey itam ca nga mën a baax ba ci nee na sax am na euh, alu taxi yoo xam ne duñ la jàppale sax say bu ñu la yóbboo ba fa ñu jëm maanaam buñ lay wàcceel bagage yi sax dañ koy sànni des fois sa saak fermeture ba toj des fois sa saak réer wala sa nangam nangam euh, loolu itam euh, ci ci wàllu liggéey boobu ngeen di liggéey itam nañu de na ngeen na nga wax sa mbokk yi ñu defaruwaat bu baax a baax doom baay waaw loolu am na solo te client bi tam li mu yóbbante aussi tamit il a parfaitement raison ndax dañuy yokk paas euh, li tax ñuy yokk paas ak si condition bi ñu ko teg ñun mooy que ne tey jii bu ñu déparé fii fayeeku fayeku 3000 mooy temps normal bu ñu demee ba Mbour du ñu am retour dañuy dawalaat xottu oto dawal ñibbise mais bu boobaa pertement la si chauffeur bi kon amatul sens pour muy déparé Dakar pour dem Mbour hmm. non seulement que da ngay jaar si péage bi da ngay fay aller retour ngay fay péage kon loolu jaratu ko loolu moo waral tey 6 millions yooyu client bi moom mooy fay aller retour bi euh, oto bi bu demee day dawalaat retour ñëw pour jël si waat ñeneen ñi fi nekkoon yóbbu leen. Mhm. loolu moo waral 6 mille yi. parce que loolu aussi tamit il faut passager bi moom di ko bàyyi xel. avènement bi bokkul ak temps normal temps normal dañu yebe 3000 francs la. mooy waaye daa ëpp Pape Gueye doomu baay dafa boo koy xool si màggalu Touba mille francs boo koy xool si xayma nag benn nit waaw non dama ne waxuma màggal ak Touba tabaski noonu tabaski waaw man oto yi ma yor daw ñu Touba Dakar Mbour laa am aw ma tabla Touba dakaar mbuur dakaar Thiès kon nit ku ne li nga am si loolu nga mën a wax dëgg la wax ci Dakar Touba parce que aw ma boobu mais dama ne Dakar Mbour man am personne. Hmm. yabe naa fi oto 6000 francs man am personne yabe naa fi oto 6000 francs li tax ma yabe que ne cause bi ma la wax moo tax ma yabe oto yi 6000. Hmm. dañuy def aller sans retour te péage bi la ñuy jëlaat péage bi kenn ku ne sénégalais yëpp xam nañ ne péage bi dafa cher. Hmm. te passager bi moom moo bëgg péage bi. imaginez aller retour dakaar Mbour nga fay 7000 francs péage loolu dafa bëri. léegi carburant tey boo ko doon xayma di nga lakk tey bu dee suñu oto yi 307 yi di nga lakk 15 litres 15 litres aller retour boo ko doon calculer ça fait 11 300 nangam. jaajëf jaajëf. léegi nga yab 18000 boo calculer loolu amatoo si dara. Mhm. loolu moo waral loolu. jaajëf waaw waaw Alaaji Baara. ma ñëw nag am fu ma xuus ak yow. ndax yéen. ndax Alaaji Baara yéen waa transport. da ngeen a am problème ba alu taxi ba alu taxi moom amul heure ñu ne interurbain muy transport ñu ne leen bu heure sàngam jotee da ngeen di gaare yéen da ngeen a am problème ba tax seen heure état nunguleel leen ko wala ñii dañoo am beneen ministre de transport loolu alaaji baare ci laa lay laaj ndax ñii dañoo am beneen ministre de transport wala yéen ci seen jëmi bopp yéen waa transport yii da ngeen a am problème ba 23 heures fu mu jotee transport noppi na alu taxi 24 sur 24 muy daw. bay bayaan kontaan naa la ci euh, laaj bi nga laaj ni question bu. Mhm. bu am solo ngi nii waaw euh, mbay bayaan yow yaay ngi des des waat ci pàcc pàcc boo xam ni mooy état dafa war dafa wàcc li waroon def. parce que ñun ñu légal def lépp li nga xam ne état wax na lii lay war def ñu def ko tënku ci tey ñu ne ñun minuit la ñuy yem duñ dem illégal ñëw ba 23h ba 2h de matin muy daw parce que xam lan la dafa am organisation boo xam ne ñoom ñu illégal dañ ko def mhm. am nañu ay njiit ci région yëpp ba buñ na taxaw leen ñu taxaw am nañ njiit ci yëpp ba buñ leen wooyee ci rassemblement ñu def ko mhm. am nañ ay njiit ci région yëpp ba xam ne bu ñu ne leen cotisation nangam nañ ko def ñu am nañ ay njiit ci région yëpp ba bu ñu leen ci benn maara ñu dem fa am nañ ay njiit yoo xam ne bu ñu wootee nee nañ dem ci état bi waxtaan ak ñoom danañ njiit yooyu nañ ñëw wuy si boobu lañ gagné ñoom foofu lañ gagné foofu lañ gagné ci ñun foofu lañ manqué ñun ñun waa transport ñun transport anduñu amuñu njiit ba pare déggoowuñu moo tax suñu secteur am problème mais xoolal xoolal càccagi cag cag illégal danaa ko wax parce que transport la day transporté danaa ko wax day transporté day transporté ay clients ci biir Dakar illégal la te pourtant ñoom dajaloon nañ ba def kaay li kaay def ba waxtaan ba am doole joo xam ne bu ñu xëyee mën nañu taxaw député yu bëri ba état bi ne leen bàyyi naa leen laissé àll ngeen liggéey kon ñun ñoo war a defaruwaat jëlaat transport teg ko ci war a teg rakaase Pape Mbaye mii indi ko ci secteur bi la bokk ñu ne ko nii lañ def ak nii nga gis sa bopp ma gis sa bopp doo yóbbu sama àq lu ma yóbbu sa àq Pambay yéen ni ngeen amee organisation encore une fois maa leen di conseil chaque jour waxtaanaat leen seen 2 millions 500 yooyu ngeen di am di ko jënd oto bees yi ngeen dawal mu nekk illégal ngeen fexe bi organiser état foqa loxoom ndax yéen a ko moom yéen a état ne ñun ci oto yi nga yor lañ bëgg jël ndax ñu légal ay citoyen lañ ñaari jabar laa yor ñeent doom laa yor juróom-benn doom laa yor ñu ne sama yéen du ngeen ñu lor ñun duñ leen lor. waaw léegi boobu daal gannaaw laa lay jox. Euh, damay ñëw tuuti ci li mu wax euh, non seulement que transport njiit yi nga xam ne nii ñoom ñoo ŋànk transport micro bi jege sa gëm. njiit yi nga xam ne tey jii ñoo ŋànk transport njiit yooyu ñoom ñoo doxalul li ñu war a doxal parce que jàppe naa ne bu ñu doxaloon li ñu war a doxal transport dafa ëmb lépp clando bi nga xam ne nii considéré wu ñu ko comme transport sax kooku si transport la bokk. tey ji war gaynde bi nga xam ne nii dañ ko bëgg a bedd ci transport ci transport la bokk waa léegi tey bu fekkente ne njiit ñii dañ jaar côté bii ñii jaar côté bii muy dem ba am day am ay parparloo ñoom njiit yi nga xamante nii ñoom lañ naan seen syndicaliste yi sax tey ji am na si ñoo xamante ne nii bu ma neexoon mën naa citer léegi seen i tur am nañ si oto yii jox ko suñu gone yi ñii jox ko seen i jarbaat. ñoom ñoom syndicaliste yi ñoom syndicaliste yi. Mhm. non côté boobu noo côté boobu dama siy ñëw Pape. côté boobu baal da gis nga am na loo xam ne nii. wax dëgg rek doo ko yërëm da nga koy xuus. wax dëgg rek. doo ko yërëm da koy xuus. parce que man tey jii bu fekkee da nga may empêcher di syndicaliste bi nga am oto boo xam ne danga nga ko jox sa jarbaat muy daw fii ba pare bëgg maa empêcher waa léegi tey man bu ma toogee est-ce que du ma wax loolu. non dama ko war a wax. Mhm. kon dafa war a leer. Mhm. dafa war a leer ñoom transporteurs yi ñoom syndicalistes yi ñoom seen bopp dañu war a def benn masse def benn masse ba ñëpp boot ñëpp kenn ku si ñu xamal que ne yow fii nga war a yem wala yow fii nga war a doxee nii nga war a teg sa tànk bu booba problème du am si secteur transport secteur transport problème bi ko fi indi yëpp ci syndicaliste yi la jóge yéen ñi ci biir xam ngeen si dara ñun nag ay ndaw lañ àgguñu leen fii xamuñu dara si transport dañuy jéem di jàng rek kon nag problème bi yëpp jógewul si état jógewul si ministre jógewul ci dara mu ngi bokk ci nga xam ne ñoo ŋànk transport fa la problème bi nekk problème bi mooy ñoom bu ñu nekkoon benn déggoo kon yaakaar naa secteur transport du am jafe-jafe. Mhm. du am jafe-jafe mukk ñëpp dinañ tegu si yoon. waaw loolu la secteur transport war a doxe mais doxe ñu noonu. waaw may ma euh, deux minute kon Alaaji Baara soo déggee ñii ni ñu waxee. Mhm. kon transport moo am problème ñoom amuñu problème. non transport mbay yàgg naa ko moo am problème dégg naa sama mbokk bi Pape mu wax ne ni ñu définir transport dañu indi CETIC CETIC. lañ dénk transport moom mooy renouveler parking automobile muy urbain muy inter urbain car rapide bii fi ne nii amul benn loi bu mën a génnee système bi ci car ci transport amul tant que sensé woo otom bi amoo droit di ko système bi taxi bi li muy ñànkar ñànkar li muy bon bon amul kenn ku ko mën a génne système bi te sensé woo parking automobile jox oto mais ki nga xam ne ne duggul ci système boobu kenn mënut a xëy benn suur fexe ba nga bokk système bi ndax duggul système bi boo gisee permis de conduire yi tey ñu changé ko euh, def ko mémoriser bi dafa am permis de conduire yoo xam ne nii am ñu ko yoroon di ci daw ay trans moomuñ ko ñu ni ko mémoriser tey tout le permis de conduire mi ngi ci am ordinateur fañ jëm xam jëm bépp oto bu materi matriculé day dugg ci ordinateur su duggee ci ordinateur amul kenn ku ko mën a dagg sànni ko ci joxoo borom oto xoolal ko oto bi ban ban numéro la yor kii miite na kii mënoo ko génne système transport da nga koy joxoon bees pax doo ko mën a génne lii mooy lii moo lii moo valable ci fa lañ jëm ñun ñëpp fa lañ jëm mu neex ñu fa lañ jëm mu naqari ñu fa lañ jëm parce que day bëgg système bépp nekk ci ordinateur muy auto carte grise muy permis muy libre muy agrément tous les systèmes day nekk ci ordinateur. Mhm. soo taxawee rek ñu tàppee sa tur génn. Mhm. xam yaa moom oto bi wala moomuloo ko ban liggéey ngay liggéey ñu xam lépp foofa lañ jëm réew mi fa mu tolloon ak fi mu jëm du benn mhm. dañu dañ koy changé ku xam loolu nag say bo jéem a taxaw léegi jéem a jëm ci changement bi am nañ nag atu mën nañ dem wax ak ne ko lii soxla say doom lañ bëgg nañoo liggéey fii la jaar wax naa ko Pambay maa ko ci xel di ko xelal am nanguwut waaye yow mii jéemal nangu nga seet nan ngeen def am ngeen organisation waxtaan leen ngeen xool état ne waa ñun kat lii ñu ne bëgg nañu sanse ca yaa ma mën a jërëjëf jërëjëf jërëjëf jëlal micro bi ma am question bu ma la laaj euh, grand. waaw ma am question bu ma la laaj euh, ginnaaw bi nga dégloo Alaaji Baara mu nekk euh, lu am solo li ngeen fi développé lépp am na solo. Euh, bu ñu demee nag ba suñu ay syndicaliste am ci oto yi ñuy daw kon ñoom ëllëg mënuñoo teg ci ci mënuñoo wax leneen ci loo xam ne nii euh, luy yàq euh, alu taxi la ma di la laaj ndax seen alu taxi yi ndax tout neuf bu ma nee tout ndax amul oto boo xam ne miite nañ ko ñu am ci laam-laam laam-laamee boo xamante ne dañu naan oto bii du ma tudd tur wi niñ koy defee ndax seen oto yi amu ci yenn yoo xamante ne nii euh, maanaam jeexi jaaxa am na ci fu neex dem walaa na fu ko neex dem faalewul duwaan faalewul gendarmerie parce que li ci ëpp solo sax ci côté boobu may waxee duwaan moo tax ndax am na ci oto yoo xamante ne nii tegewuñ ci yoon te ñi ngi daw bari fi lool ndax loolu am na ci seen oto yi. yow moom su ma doon li may njëkk a def mooy jël si la yow Mbaye Badiane ah yow ku ñu war jël si nga nga wone oto yi daw te amuñuy këyit parce que man loolu xaw ma ko xaw ma ko musuma koo gis benn ñaar baara li muy wax boo mare reche moo ko njëkk a wax keneen ak keneen moo ko wax dañu délocaliser la gare routière de pompier dañ koo jële fi mu nekkoon ci xolu Ndakaaru pour afal dëkk bi yóbbu ko buntu Pikine moo am benn manque à ci client bi client bi waroon a jële fii oto tey dafay fay taxi deux mille francs pour dem buntu Pikine man ma indi taxi bi ngay woowee allo taxi ba buntu këram laaj ko 3000. pour yóbbu ko loolu wax nga ko pour yóbbu ko ça c'est un moom kon Baara moomu jox loolu Baara bokkuñu ay client taxi jaune noir transport urbain lay def taxi bii ma yor interurbain la le CETUD yaa ko cité le conseil exécutif des transport urbains de Dakar CETUD dafa am lu ñuy woowee une négociation institutionnelle dafa am benn waxtaan bu nguur gi ubbi waxtaan wi ñun dañ cee bokkul ñun acteurs yi ma koy métti lu aw ma dara lu ma leen di reproché ñoom état lu dul lu ñu def ma teg ci baaraam boobu teg naa ci baaraam dafa am fu ñuy waxtaane banque mondiale mi dugal xaalisam nekk fa parce que partenaire financier buy dugal xaalisam ci transport bëriwul déjà ci àdduna wóoluwuñ transport banque mondiale mi dugal xaalisam ak CETUD ak état mooy état état CETUD état la état moo ko ak les transporteurs les plus influents yi ëpp doole ci dëkk bi ñoo fay toog au détriment des acteurs même syndicaliste bi maa ngi jàpp ni mën na fa teew